et www.cefas-du6sénégal.com ou bien wwwe du Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh-huh. yeah. ñanko gi fépp waaw boppam la ca naa ñanko yow xanaa. waaleykum salaam. ngeen def waay. taarikaal na ngeen dafa coono. tey tey. Ah, alhamdulilah. taarikaal. alhamdulilah. taarikaal. soxla woon de. ah. waaw ah. ay ca bisimilah toogal toogal toogal. Eh. toogal ngeen def ak koor bi. alhamdulilah sant bu baax a baax. naka tàngoor ay ngi si jàmm bu baax. ngeen def ah? la mbaay mbaay. mbaay kuwaate. kuwaate kuwaate kuwaate kuwaate. mbokki fan. Euh, ñu ngi dëkk Touba la. ah Touba. ah waay waay waay waay waay alhamdulilah ak njaboot bi. sant a baax. taarikal. Ah, alhamdulilah ñun tettal ma kër gi. waaw ñu amoon ay aide financière yoo xam ne dañ koy def. Hmm. ay nongo suñu tubaab lañu waaye dañoo jóge fii. Hmm. ñu jóge woon bitim lu ñuy def daal dañ koy def ci sutura. Hmm. bëggoon am ay ndimbal yu ñu bëggoon def ci koor bi. est-ce que est-ce que. xamaloon ni ma. yàlla leen di fay boo demee kër Baye Guédé. waaw solo yàlla boo fa demee. di nga fekk ñoo xam ne yittewoo nañ ko lool. kër Baye Guédé fii la. ki la tegtal juumul kër ga dee ngi ni taarikàlla ni mbali day moom dafa fekk ne koor gi moom yéen ci ñu mel ni yéen rek yéenay wër di dimbali waate waaye xam nga ñu mënuñoo xëccoo mais waaye carte bi foo mën a dem foo mën a dem nag laay wax de jàppal ni ma wax de foo dem bu ñu kër Baye Guédé baal ñëpp fi leen xam. ana moom sax ba moom nag dafa nekkoon tamit dallu Guédé dëkku Guédé dëkku. kaay kaay kaay waaye am nga gan. Guédé dëkku ñëwal waaye tamit nag. is ambatan, bismillah ndeysaan mu ngi noonu de Dai ngi noonu de day day day day sama di nga ma ba mu dëkkee ci quartier bi ba nëgë ni eh, kër gii dem fii fi la yabal gédé gédé gédé bu leer sax mënoo ko gédé dëkk gërë dëkk dama dama dama bëgg rek ah, ngeen def ngeen sant bismillah li ngeen mi ngi sama kon kon kon jeex na bale jàmm ma damm moom taarikaal la eh. indi laay sax wax ci yow as tuut laataa ngaa dikk xamal na ma ne dafa indi ay ndimbal hmm. te ndimbal loolu nee na fii lañ ko yebal ci sa kër gi ma kër gi de wax fa na yàlla moom foo mën dem fii ci carte bi ak foo mën dem buñ la waxul demal kër gi de baal bul may moom lañ ma wax waaw mi ngi n'est-ce pas moom mooy papa yi Eh, eh, doomam ji ñànku ñànku ñànku ci gañam gii la la soqi ko maa la wax li mi ngi tànk yu rafet na ndax nit bu ñëwee ci kër sax dan la war a may ndox nga naan waaye ci weeru koor lan nekk ah. ndax ñun ku ñu xam-xam ne ay noobu lan sonn nu de ah, waaw li ñu jox ni dinañ ko jël billahi ah. ah léegi laa doon jàpp maa damaa tooy fi léegi laa jàpp man Guédé man man Guédé man ku ma xam Guédé ci gox bii. xam ne nobbu laa ñaari yoon. waaw pire. ñu ngi lay sant nag di la gërëm. pire somme bi ñaata la. lii enveloppe deux cent soixante quinze mille. ci bu baax xeeb nañ ko nag. amoon ngeen yokk seen loxo nag ñaanal ñu si. comme yu daaw yi rek. bu soobee yàlla lépp luy ñëw daal am na daal yeneen projet yoo xam ne war nañ koo def. daanaka euh. mën naa jàpp ni kër gi lu toll ak cinquante millions war na fee dugg. est que ñuy ñaan yàlla rek yaakaar bañ a tas. war nañ mën a defar euh. dinañ ñëw korité dinañ ñëw ci koor lañ toll. donc ñaanal leen ñu rek. lépp daal luñ ci bëgg daal bëgg nañ ko parce que am na lu bëri luñ jot a wax. yow da naan kenn mënu laa téye da ngay dem. Mm. yow tu vas. yow tu te day arrivé. lu ne te da ngay xam nak nag xam mi ngi sa xel nag même boo ma ko xam naa mi ngi sa xel leer na ma ni bi nga naan euh, Gédé. sa xel mi ngi naan mm-hmm. Patas Mbaye. Mm-hmm. boo fi ñëwaat mais dama ne naan naan dugg sa bopp <laughs> doo koy kii dama xam naa mi ci xelam ñaar tey kenn mag yow waaw loo tax ma alal jii taxul nu kenn xam déedéet mukk ci àdduna mukk xanaa xamoo ñu mel nii dañoo Sénégal wallaahi bëgg dimbali nit ñi xamul fu nu jaar ñëw nga fi nga war a li li Patas da ngay mm. arrivé <laughs> da ngay da ngay da ñëw de. daal ma teg ko ci loxo Guédé. waaw waaw waaw benn moom. kon ko benn ngeen. waaw waaw man maay moom bu la neexoon sax nga jël photo. waaw waaw. incha allah jërëjëf waaw moom euh, liñ lay ñaanal moom da ngay dem de. incha allah ah. koy xalaat naan yal na yàlla defal jàmm. Hmm. yal na yàlla defal tawfiq. amiin yal na yàlla gudd fan. amiin loo loo loo ragal yàlla bu la ko yàlla xuuxal. amiin yalla bo xuxle dara hmm. nangul nangul la ñaan nangul la ñaan alaykum salam xala yaangi non ki ki ki ñanko ngi ni mi nga don la tay sa ki dama xam ki may bayam ki moy ndaya ay doomi nday ren ñoo juddondo ci fi ci kepar gi la juddo waaw waaw ci kepar gi la juddo ah ça va bien yar nak donte an an sagom sax nak nak dédé dédé mané dox leen dox dem leen ci néeg ba dem leen dox leen ah waaye dañuy kii leen eh xale yi dem leen ci mbaaru xale yi nga doon fooyee dem leen aca ci xale yi xale yi koor bi li nga xana kii ko sëriñ si la ndaaya ndaaya la nekk noonu ñaan ko nekk waaw wax nañ ko ba noppi loolu wax nañ ko ba noppi wax nañ ko ba noppi loolu ñu ma xaalis waaw am na loolu daan longo woon na yàlla boole lañ lii oto daal man Ndaayaan. Ndaayaan ah Ndaayaan la Ndaayaan. yow yow noo tudd. Ñanku. Ñanku mooy ki ma la expliqué. sànq moom moo nekk noonu moo nekk noonu. moo nekk noonu. man ko yére ko tëj. soo soo ko tëjee réfugié ko ak moom. xanaa bëggoo nekk mag soo ma yor oto yi di dawal yor ci kër yi di def comme ni may def ni yor oto dawal. waaw ah nga ma mën naa dawal sax. mosoo ko bëgg mosoo ko bëgg. bëgg nga ko yow nag bëgg mën nga ko di nga ko def waaw lii doo ko def da ngay da solo nga ànd ak ndaayaan mi solo noonu laa ko ko waxee xale yu jigéen mu ngi def cus yi seen yaram dañuy tàgg seen sago eh, eh. léegi sama yoon sama yoon kay léegi lenn lañ ñoom kay ay cus ak lu ne la wax da ngeen di ñëw ma yóbbu leen ngeen ba set sol ay yére rafet du noonu kay sango ba set si sol yére rafet su ma yóbbu leen ngeen commencé jàngi commencé am yëpp ah bala bëggoo loolu naa ah, kay waaw ah, loolu rafet na moom ma ne maa mën a tàggu sama papa

fay fay tuka kire nan la tuddu fadu kule ki may fadu kule nan ki may fa mom moy gede buso patas ki e gede gede gede ki di fadu gede moy sam fatu kel gi la deut kel gi la deut dalama expliquer la wa ma gede elan nan ay da ko do ngeen lolu moy may wajurum ka fay ma way sa copain la doo ko yow sa xel moo mooy faa duggule. duggule mooy faa fataas faa fataas mooy faa fay laayam. man faa faa fa génne mu ngi fii ci kër gi. Eh, demeewul noonu non di nga comprendre tu comprends pas. kay waa de ñun. mais yow lii kii sa kan. kii man yaay pampam yaa ko waaw kay yow yow yow maa ko génne yow yaa mën a yow fa moo ma jure waaw waaw sax mu naa ma moo ma jur te jur doo doo doo doo doo expliqué kaar mu demee waaw waaw waaw billaay boo ko dégloo mu nekk pampam mais yow kii kon damay dul man mbaay toogal mbaay jullit nga ci koor lañ nekk waaw bi nga toogee fii da nga ne ma kii xam nga xam nga ñun bu dee suñu famille déedéet dama laa laaj rek kii moo ko jur wala jur jiwul yëpp benn nañu waaw loolu la loolu laa bëgg a wax ñun ñëpp benn laa bëgg a wax dama bëgg kii bu mën na ko teewal ci weeru koor nga nekk waxal sa diggante ak yàlla sa akulaay taala dëgg na naam kii waaye na bàyyam kan moo jur ñànku mi kii moo ko jur wala jur ko kii saway kii amul doom kii kii te amul sax yow déglu ko jur kan mooy gédee gédee euh, gédee dugg benn tuub bi la moo na ñu man la man la bu dee mu mag xam naa da ngaa leerul loolu gerte dafa am gerte mu ndaw ak gerte mu mag. gerte mu mag ay mu mag du sama la du sama lakku papa du sama lakku duul kii du sama tus dégg ma ana li ma la joxoon la ma joxoon déedéet fi amul lu fi fi nag dama li ma la joxoon si ah loolu fi jox ana la joxoon man gerte ngay wax moom ma jox la xaalis. jox ma li ma la joxoon s'il te plaît. kii mooy kii kii mooy kii mooy kii mooy duggule moo tàkkal ñoo ñoo yem ni ñuy def. amul doo amul jabal day war taata bi lay war xale jigéen ta tàkkal lay toppandoo. dama la taata taata bi xale jigéen ñi. laa wax. man wala tàkkal. tàkkal laa wax. te mënu juruma la. mën nga ma yóbbu sa kër fa. kaña ah? nan dem ñaata naa la ko xamal maay boy. toogal yéen vous n'avez même pas honte. mais nangu baaxul de sa yaay day jur doomu jaan lii man maa la ko wax tey nag may nangu nga def nag. waaw waaw nga def. man damaa rus. damaa am gàcce. yow bés bu nekk ci gàcce nga dëkk. ci gàcce nga dëkk yow. ci gémmiñ ci gémmiñ. na nga duggaat ci kër gi yow Ndao fii ak ngoon fii ak ñuy rek nga duggaat ci ma lekk la yow fii ak ñuy ndog. dogal. Eh, faa man kay faa ma jàppaat nag. dogal ma jàpp jàpp. dogal ma jàpp toj xam nga fen yi ma fen fii déglu rim rim bi nga jox ndaaya boo ko joxoon booy bi toog ci bi rek xaalis bi na dama pataas man dama dama xam lu tax ngay sama njàppale moo tax lu toll deux cent cent soixante quinze mille génn kër ngi wal waaye déggu li moo ko nga ñëw ñaari yoon nee na ma kilifa mise en scène bu leer nañ waaw mu lay laaj dina dina jaar ci nan la ay jàpp yow sa jàpp fan nga fa toje di nga ma woowee may dugg si toj loolu xam nga fen man nag à part deux jours xam sama bopp dootuma bokk ak yow mafia dootuma bokk ak yow dil dinaa def sama dilu bopp. man nag man man de man naa war a xool ak koor ak weeru gi may war man man man man yàlla may seetaan nag yàlla may seetaan de. xam nga lu toll nii ndoo ko tegoo ko dara tegoo ko mu génne ne ci kër gi deux cent soixante quinze bi di jëm kër gi de waaye nag caam caam naa mbir de. kuy caam. dukk euh, euh, euh, de naa mbir de ñaar naa la ko waxal. xaalis bi bu ko bàyyee mu demee non day yomb. Hmm. nanu dem kër Gédé participer ci xaalis bi jéem cee duñ ci lek buñ toogee ni du bax de. jógal demal demal maa ñëw. maa ñëw maa ñëw maa ñëw. man man man kasama def. bu gor la kenn duma jëm ñaar yow demal ma ñew demal. Yeah. Uh-huh. Yeah. Yeah. Yeah. xeex nyango isaga nene dade dinyo diwaga ande kikens koko indaya nyango gife papa mlacha na nyanko yo khana kiso nyanko yo bo khamon nyanko do la ke yeah uh huh yeah nyango ngi nyango isaga nene dade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 et wwwcefas du 6 ou bien wwwe du 6 Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. yeah. ñanko gi fépp waaw ah, ah. boppam laajte naa ñanko yow xanaa gisoo ñanko yow boo xamoon ñanko doo laajte kan mooy ñanko boppam laajte naa ñanko. Papa papa papa jógal amal nga dara ak ah, invité bi bien bien ñu toog am xam nga saa kaa atale saa koo eh, eh, kan la de. salaamaaleykum. saa kaay de tawa bi tawa mel ma nii de koor bee ma jàpp rek toogal daa toogal ba jàmm sant yàlla waaye faawa kii ah loo tudd sax nga wax fa fa fa la tudd mais fa yi sant daal waaw kuwaat la sant daa ñëwoon fii que ñoom daayaana moom nee na so fàggee fàggee na soxla waxal. waaw waaw lan moo doon tànk yi góor gi noo def. sant yàlla baal ma alhamdulilah. mën nga baal ma laax mbelu ma ne koor gee ma jàpp. waaw dëgg la wala sant woon. kare la kare. jaay la sant jaay jaay la sant. waajur atal atal la. Njaay la Njaay. Njaay sant Njaay. d'accord dañoo ñëwoon pour def ay xeet ci wàllum koor bi ndimbal. Mm-hmm. bi mu ñëwee bon. tettaloon ma kër gi yow sax yaa ma taxoon waaw waaw man la waaye ma dem ci kër goo xam ne waaw ma ko fekk daal mm. yàlla dimbali ma yi ñëw mm. ñu ne sa doom la waaw waaw waaw ñànku mi maa ko jur ndaayaan ñii suñu dëkkandoo la ñoom ñoo dëkk mooy kër ñoom ñoo dëkk xamal ma daal kooku mm. nekkul gene waaw man maa ngi ni man maa ngi eh xaaral problème dañoo def moom moom dafa dem dugg kër googu ah. faafat fëy na dugg le daat ne moom mooy moom mooy gene faafa taas jàppale ko moom mooy gerte ñu tuddee la ñu ñu tuddee ko gerte dugg waaw ñoom ñu jël waaw dugg rek moo ne moom mooy gerte dugg waaw te kii dafa indi xaay xaw ma la indi ñu ñëw foofu noonu yaa nekk ñu téye ko ñoom moom yow la soxla ko mu jox leen këyit ak këyit ah. mu jox ko ñoom ñu ne yow yaay yow yaay yow yaay yow moom mooy yow ah léegi ma ñëw mu ne ma moom mooy sama faam ah, sama doom la mm-hmm. mooy ñànku kër gi maa moom kon gi si boppam man la bëggoon fal chef de quartier si seen pexe ñoom ñii ñoo tax waa kon bu wóoluwunu ma def ma chef de man la Mbaye Guèye Ndiaye Sénégal njaay Ndakaaru Ndiaye Gaynde Ndiaye te xam nga ni biti bu amul Ndiaye doo jaay Ñanko Ndiaye waaw may sa baay bu ma santee Ndiaye kay Ndiaye nga sax Ñanko Ndiaye waaw dégg nga kii ku ndaw kooku nga fekk si ko mooy baayam nii kii mel baayam noonu la meloon doomu xaj la waaw ok daa boo saaga sama kanam doom ma saaga. boo ma saaga ma. papa ju réew nga. waaw waaw dafa ne waaye yow si sa sa papa li mu def moo gën a garaaw bàyyi nag waxuma nga bul wax. Ah, nangu naa ndaay ndaay xoolal tey bu affecté dama am gan. léegi nag sooy li bienvenue maa ngi nii man la géré bu fekkee géré nga doon seet géré yaa ngi bon les choses commencent à devenir un peu brouillon dans ma tête xaw gédé géde kii sànq sant bi nee mais mën am sa carte d'identité s'il vous plaît nan dem kadior lo wax nga né lu nga njëkk wax au début yéen état affaire yi dafa commencé di jaxasoo sama bopp dem naa fee ñëwaat naa fii kii nee na santoo Njaay sant ah. léegi sa sa carte d'identité laa soxla woon sa waaye loo ko loo koy def nga nga ñëw ne laaj kanate yu tamit non je pense que expliqué nañ la ko dañ ñoo ko def ay et ay et dañu joxe ay ndimbal ay ndimbal yaa ngi dégg ci koor bi def ngeen lu baax gis nga c'est une somme de 275 mille alhamdulilah alhamdulilah ko war a ci koor bi tamit du yem ci dong li ma waxoon dong laay waxaat fii mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. kër gi fii nii mën nañ jàpp ni ba cinquante million mën na fee kër gi yow ak yow ci koor mi ngi ñëw. tamxarit mi ngi ñëw. Mhm. tabaski mi kii nag doole yi dong ñoo leen tax ndeysaan. ko teg daal ci yoon daal. ak dégg xam a kii boo xamee xoolee kii nga xam dafa mit enveloppe. waaw xoolal daamine bi. waaw ay. ba pare yow. ko baax nga ah? ak sa sa yëri weex yi xam ne boo xool bu weex nga kañ nga jógee màq. wa dem ko yàlla nga dem léegi carte d'identité bi keroog damaa dem si bitik abu fii si keroog abu saw. Ah, dëkkandoo la. moom moo dëkk ci léegi ku baax. waaw keroog damaa dem si abu mi tëddi kër abu saw fekk boobu kër gi tege tembe boobu laa jëloon si moom saako ceeb comme wóolu ma kaa jox ma balaa balaa fa bàyyi sama carte d'identité comme nag lii ñëw nga bu soobee yàlla dinaa jotaat sama carte d'identité waaw dinaa jotaat dinaa jot waaw waaw man dinaa jotaat sama carte d'identité waaw kon da ngay bàyyi ba nga récupérer carte hmm. a mën a ñëw pour jox la daal demee nañ ñi kii gédé la kii du gédé. Hmm. bàyyi daal mais man boo xoolee sama kanam nga xam ne maa ngi gédé. waaw dëgg la dëgg la xoolal tur bi rek ak sa waay jox rek kii gédé wuy ma wuy ma sëñ bi. tàmbal gis nga euh, foo gis euh, boo gis am na exception. exception la ñu nga baal mais soxna si fi romb léegi ci kër gi la dëkk tadu. waaw. mën nga ma ko ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Ah kon ah ah ah ah oui oui ma. ah ah ah ah ah ah ah ah oui ma ah ah ah ah ko dara. Ah ah ah ah ah ah ah sama xarit bi ah ah sama xarit bi. sama xarit bi. ah ah te ah Ah ah ah ah ah ak ah Salam. ah ah Bala. ah waaw le jeune milliardaire. la waale di way waaw kii la waale di way waaw waaye kowa kai mu kuna yawan kowa a falawar wa falawar falawar dañoo kii falawar wa yow da nga neex mbaa doxee woon nag non non sant yàlla naka koor gi naka koor gi léegi aw aw dimbali ma leen dugal si bi nga may ma ko dugal si nekk waaw waaw fay dañoo woon da woon ila woon xir dama xir dama xir dama xir waaw baax na waaw waaw jëlal toobu nga ñëw toog ñëw ah inshallah bàyyi ko mu toog si dimbali la bokk yow bu yow yow kese la ñuy dimbali. ñëpp la ñuy dimbali. léegi léegi Ndaya euh, sëñ bi yow lii nga def nii yàlla mool la siy fay. sama carte d'identité bi yàlla du ko fayoo kum de. Euh, ah defal nag kër ñanku ñanku ñanku sama carte d'identité bi am na si abu juróom benn weer. tey bu may yàlla dimbali kii indil ma xaw ma juróom fukki jun junni ndar ko teg sama loxo. bu baax la. non kay kay toog ah, ni soxna kii ma si ah, yàlla daa dogal yàlla dafaa dénk teraanga moom nag day xool kilifa yu mel ni man néew doon yu mel ni man mu leen di dimbali. yàlla yabal ko fii nag muy laajte bàyyi gene ba egsi si kër gi. léegi wuy ma. Euh, noo tudd si papi lu amul seere baax na laaj ko moo noose comment. soxna si ban noo def. maa ngi si maa ngi ci jàmm baax waaw yaa ngi ci jàmm bëggoon naa nga waaye garaawul mm, toog rek. waaw ak weeru koor gi sax la. kii su ma juumul de gën lañ koy wax. non amul bu mee duggee rek. ak jiixi jaar di waaw waaw waaw maa ngi bi maa ngi gëdde lan la ban problème la ñuy def bàyyil ma waaw waaw waaw. léegi ñëw. maa ñëw maa a xaar ma. Euh, léegi lii maa ngi ñëw. Ah? waaw. daanaka euh, ah? ah, nag lu yàlla di def mooy lu rafet rek la def. kii nii sama dëkkandoo la wax na ne man maay gede kii wax na ne man maay gede sama kanam gii boo xool di nga xam man maay gede non sa kanam mënu ne foog na ne yow hmm. hmm. fekkee incha allah dinaa la ko jox ku si sa wërsëg nekkee ngi si borom bitig bi boo ma xaalis même jëli carte d'identité wala yow carte d'identité boobu ñëw xaar dëgguñu. waaw bàyyi ma dem bàyyi ma dem maa ngi nekk ci yoon bi xam na yeneen yu ma war a def yi balaa maa gën a. ngeen baal ñu wax bu baax bu soobee yàlla boobu dimbalu woon kon ñu def noonu ñu def noonu gerte góor gi ñu def noonu. waaw damay def bàyyi bàyyi ma dem. waaw nañ def loolu. waaw yow waaw. yow ku ñëw nga gunge. waaw waaw. ah awo awo. am feebul góor bu rafet. xew nga góor bu rafet la waaye yow lu ma si man lu ma si man boo sama kii lépp nga yàq ah ginnaaw yàlla tey bu ma amul quarante yow yaa ma ko xay loo gis rek daal kay def kay yàq rek nga nekk si dëkk waaye dina ma yomb na waa ji waa ji ne waa li wax amoo loo wax amoo loo wax amoo loo wax tey bu ma amul quarante yaa ma ko xay ñaamaa yëg ci biir rek ay aw kaay ay day aw bala ngaa dugg si biir kaay waay waaye dafa lu ma métti dafa lu ma ni déglul déglul lan la. ah da ngaa xam kii bu yaatu. kan la papi. waaw yaa ma ko présenté fii léegi. waaw yaa ko yàmbaa la dama la koy wax pour nga def moom fële attention. ah dañu la yàmba feeñul ci moom. feeñul ci moom ah tey sax yow da ngaa parce que jàkkat yàmbaa buy dox yàmbaa bi tax si yaram. waaye boo ko xoolee da ngay xam ne kii nii mooy loolu naan. ak yow yaa warul woon. loolu la jox xaalis jox ko xaalis kii kii. jaaykatu dorog la laa wax bu fekkee ne nag da nga gis ni mu mel nii ba nga yaakaar ne am nga loo yaakaar si moom demal waaw waaye xam nga problème bi lan la am nga problème bi fu mu ne man yàlla daa dogal di jaaykatu yàlla ma man yow si waay ma dal waaye dugal fii rek yaa sa bàyyi yow ak gën dem timide timide waaye timide rek waaw man di ñëw rek eh, ñëwal ñëwal. amee ma noonu quoi. Ah. da nga yaakaar dinaa taxaw fii nga wax ak kii ba pare tourné dama waxoon. waaw da nga waroon a gunge kii. la ma waroon a jox xaalis jox ko xaalis loo ci gunge yow. waaw léegi yow may ma sa yow yow seytaane nga seytaane moo léegi maa tay seytaane ka tay katam mor fa defal bu bu kaxlo jàmm yow moom da nga ñàkk fay yow la mi torop yow yow la mi torop yow turare nga samp jeek ñoo nga dem jaxat loolu sa yoon ñëw ci kër gi bari dama umu bu se bu ñëw nga daxal mu koy waxale mi yow may ma sama jàmm gan ngay yow may ma sama jàmm ah tay mën nga jëlante yow mën nga jëlante fay mu waay boo fay jeek nga koy wax boo dof dof lo ba sa loxo bi laal boo dof dof lo ba sa loxo bi laal boo sampee jeek dañ koy wax kamo samp jé moom moo samp jé yow yaa samp jé yow yaa samp jé yow yaa samp jé yow yow eh may eh, eh, eh, ma sama jàmm may ma sama jàmm boo jugee chaque jour di profito di dóor ñi ñi yaakaar dañ la ci maa la gën a réew xam nga sa la xam naa ko moo tax ma la koy dóor xam naa ko ani yaram ani yaram dof kenn du ne ko yaa moom xew mi ci nga bokk lañ koy wax yow yow n y a n k o n g i k u i saga, nana dade, ino diwaga, a n d kike. Yeah, uh huh, yeah. Nyankungi he, nyankungi saga, n e n a dade, d ino y diwaga. anakigenza koko indaya nyanko ngifepa papa mlaja na nyanko yohana kiso nyanko yobohamon nyanko dolake yeah uh-huh. yeah nyanko ngihe nyanko ngisaga nene dade dinyo diwaga anakigenza koko in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 et www.cefas-du6sénégal.com ou bien wwwe du Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. yeah. baay géedee géewal timma timma timma fii jolla meeru ma voilà may ma deux minutes nga tuuti ñëw ci kër dugg sama xarit laay jox petit doomi géwal war naa woo doomi géwal te du réfléchir géwal liir la xanaa ko la woo jox la eh béy boobu na noppi eh, man maa man maa sa seetlu bu naan dëgg léeg-léeg day day day yëkku nit war koo mën a gaañ baal ko. noppi naa. ñaan ko na leen def. yow la ngay mee ni mel ne bëy da ngay génn kër gi de. waaw fi sa kasa bopp mbañ. de nan la ah, mais nii. mais léegi boo day mel ni bëy da laa mel bu sàkk sa bopp mbañ mukk ci àdduna Pataas mbaay nga tudd. dërëg ñaar. waaw noonu laa béy kay. yow toog rek rek. yow lu ma lay woo ba léegi. yaa ngi fii toog. ndax laa seet waaye ak yeneen dañ ne la ko. ndax am na ful la. waaw ndax seen kër la toog la moo tey toog sa kër. booy bi ëpp ful la moom mi toog fii di la woo ngay ñëw. xoolal gerte gerte gerte wax waxala bu moom nag gerte. Euh, dëkk waxala bu moom. bu gaawal sa wax nag sama xaar yi ñu ngi jooy. waaw toog euh, attaque bi ñu nekk laa yi dëgg la. noobu nga ñuy noobu. ñànku mii warta ñëw kër gi toog ñun même bu fi nekkul ñànku am droit ñu toog fi waaye man mi di bàyyam yenn saa damay jàpp war a nit te du ma am ku ma yónni yónni nit waaw dégg nga de da war a yónni nit la sama doom la la maay bàyyam ah nit mhm. léegi waaw boo gisee nu wóolu la mhm. korité lañ jël waaw ku ni ku ni korité mhm. kuli poulet ni budget ndax budget bi mooy mooy yóbbu poulet bi mooy indi poulet bi. Oh. yaa ñaay dëkk bi. dëkk am ay géej baax kii wax ko mu bàyyi ba. Eh, ñànku laa la wax a tax wax ko mu bàyyi mi ngi may tooñ de. ma kenn du ko kekkal kaw. ñànku kii bul xool mu tuutee nii. nga koy ah. kekkal kaw. kon nag xarit bëreet la yaa xam naa loolu. ah ah loolu la jëmm gi la jëmm gi. voilà jëmm gi eh? déedéet ñànku. soo ba ba su ma la waxee ba ba lu lu man moom léegi. déedéet ñàkk ruuma du fi am. Fatas bu dee. Fatas eh. ruuma ruuma ruuma ajul loolu ajul loolu. ruuma ruuma ajul loolu ah ruuma ñu nga ci moom. ñànku baal bruit bi. waaw dafa lema rek. maa ngi ñàkk xool lu yàgg kii xamoon na mënoo bëgg. dama leen di ñaan mbaay Fatas mbaay. ku ne sama doom mbaay nga toogal. dama leen di ñaan may naa leen ku ne cent franc yéen ñaan. am nga kilifa ba jëlal. yow am nga kilifa waaw. kii su fekk du ma ko dayloo yàlla naa dee tàmbali. Eh, yow xamadi nga waaw yow xamadi nga. dama la ko ñaan wax ma des tool langage ki sa bàyyi la koor gi kenn defatul biir wi im naayam bi ci boppam kenn déggatul nooy bi noddam ndax nanka lay nodd fu mu toll nii ah énergie yi wàcc na ñoo ko bàyyi nga ñu reposer ñoo ko ñoo ko aide nous dimbali ñu kii sa bàyyi la bu futteeku woon fii nga futteeku di nga xam ne moo la mag foof moo pejaan na ba weex tal la lu ma leen te yaa ngi ñun kukk dégg nga xaayaa de ku dégg séeréer bul dajeeg moom da lay ñuus xam naa ko. man ngay dayloo yow. yow a puub na. de kay puub loo na la ba pare laam nan la yow waroon wax. mbaa di nga ko ci biir déedéet toog déedéet fu ñaŋ fu baax na. ah gerte dafa la yow laab nan la kay puub nga laab nan la. yow laaba puub mel ni pompier du ñu nii. a ah. ah. dafa doy waar waaye moom it. yow xam nga ne patas mbaam mi bu toogee ñàkk di ko tëkk naa ko añooñu ruumal nag. di ko ki ñàkk fayda yoo xam ne. waaw kii du moromam du moromam. Mm, waaye daa jeexal. Mm. boo jeexalee kii xale la mu ngi toll si digg ndëndam. noonu ngay atte non dama lay wax. baax na bu nekkoon mbéy gee moo fi nekkoon noonu. robo. Mm. yaa ngi noonu. addinaa ngi noonu. jugee ngi noonu. jugee la neex. léegi baal la ngay déwén fi ne. na fi tan moom benn. ayca dama ni. giir yu baax. kaar macha allah. yàlla na la cat seexlu. Fatas Mbaye mii. nuy doomi géwél piir mhm. wayaan gi ni wayaan di ko def ñun ñu ñoo ko moom mhm. xiifunu mhm. marunu ah. danoo war ñu di ko def ay géwél lan piir géwél sañ naa jékki-jékki dem dem kër giiram ni ko dama bëgg lii baax bàkk ko ci lu wér sëñ xal ko bu wóor ko dëgg doo suuf mu wér

apprenez la parole. li ma cay wax du ko wax na lépp nanu tànn suñuy giir yu baax rek dem fa nu teral na surtout digg neexut dégg nu am. Ndayane dama Ndayane. Eh, eh, eh, de lu ma toog fii mu ngi jëm tooy ma doo xaar ngay nelaw. ñànku ñànku. sabay man Ndayane laay wax. waaye yow amul ngor yow dama nga nelaw. waaw kay Ndayane dama ko yar de mi ngi nampul de. te sa jaan gi téye ko. bu ko defee ñu xool suñuy giir yu baax dem fa waxtaan ak ñu teral ñu ñu ñëw ngiwén waxtaane ko man loolu rek laa teem lu ma ci wax de aw noo ko noonu ko doxalee rek man ginnaaw kan man hmm. dafa dem voyage hmm. la wax hmm. ma naa la ko da wax na ko kii du crémier nata ah, moo doon jox saabu lu ma jëndee saabu ak ama ah, yeeg yooyu. yow yow yaramal nata jaay cuuraay bu réew bu bénéfice nata xolle jaay cuuraay lay def ay yow baax na amul ay géer yi yow dugg ak say géer am ñaar ah yow man dama yaakaar man man man jërëjëf sabaay ji dafa yor yor xel xel ndaana. ay duur nga ma ay sabaay yi. xam nga ni déedéet yaa ne woon. déet man maa ko bëggoon boole ci waxtaan bi. mu avancé. boo fi boo fi laalee muus mi. dafay jaalaat si ay muus mi ma def loolu. jërëjëf. da nga rey sama muus mi. ñun dañoo wax ni yoon yaa nu ëpp ay géer. nangu nañu te. ni dafay teel a nangu noppalu ko. Oh. yóbbu mu say géer. Oh. kotti kotti yàlla yàlla oh. yàqal loolu dara déedéet. Euh, Aba no stress samay géer la bokkoon waaye léegi mënatumaa jox dara ndax lu mu am jënd ne ko karitam xam de du géer Italia woo na dina ma am mu yónni waaye doyu ma loolu xam naa bu mu jëndalee ñànk ko rek jëndal si tantam ba day jeex. on pousse. Ousmane Thiera saa moo ko vocal day nekk en ligne day vie waaye du répondre position ñu xuus of ko sama ngor nag maytuma may vocal kenn di wax sama soxla moo tax aw ma benn proposition bu may def moom. amoo benn giir boo nu jox. nañ dem nañ dem kër kër daal yi. soo am na waaye daal moom mën nañ fa dem. tamit eh, bu nee ah. baalu ko baalu ko àq. waxtaan ak moom waxtaanu ne ko xale yi ñoo juuf ñun nag ñun ñëw nañu. ñoom waaw waaw nii la lu ñu dugg danay dugg seen i mbir jugee fa cent mille cent mille franc jàmm doon koy jiñante di ko jiñante ba xaalis ba lew ñaŋ teel sa xel bu sax moom moom toore toore man dama dama kii daal dama gëre ñun daal fu li du mi wax war nañ ko ma def hmm. dem kër daal mii waxtaan ak moom hmm. mooy dëgg nga dem kër daale waxtaan bu ñu demee nag nañ ko def ci ordre. kay kay ku am fi na ma fekk ci biir. yow dama koy wax sa buntu soo ko léegi yow yow ñëpp mën nañoo lom ba mu des yow yow. quand même waaw. yow na fee laa génn kër gi yow. waaw yow si ngeen la nag tey nag. ba tey de bàyyi ko. pare tey ngaa liggéey booy bi joo joo da ngeen xam naa joo ngeen liggéey booy bi. war ko ni dama lay sàkku laay war a suul luuma luuma leen luuma leen ah, xam nga loolu ñaan ko jàng kii su fekkee ah, du wax xoolal du lay di woo su fekkee du lay di woo yàlla naa ne taf ko moon ko yow góor yàlla nga waaw nga de dama wuyu dama wuyu dama wuyu su fekkee du lay di woo su fekkee du lay di woo yàlla naa ne su fekkee du lay di woo yàlla naa ne ñanku syndicat médical bi moytu ko ñanku dawal syndicat médical su fekkee ñanku bàyyi ku ngay daw da da fuub day bàyyi ku ngay diw da nga am fit. yow xaaral ma ci bit yow noppil. mais dama xaar ci yow yow xam ne boo ñëwee doo ñëw dàq sa ginnaaw. làqatu ma yow noppi rek muso am fit muso am fit saa mu musaar xeex ginnaaw ngay féetee yaa ngi Mansour Diagne yow rek leen rek. yow danoo danoo da xam dañu dem ci gaal yi. acca. teel sa gat gi. teel sa laam ngeen gën. acca door. jël gi. ñun ñëpp ngeen. génnal génnal. Fadou Kër Kër Aïcha. benn géwél boo laal laal nga géwél yëpp. génn si bit doo mën a

xaar ma sama daal fafa indi sama daal fafa li ma di ah yow ngay góor jigéen yow ngay béy bi jigéen nga la yow yow yow yow ngay béy bi jigéen xanaa kan la bi kan saga di waga Yeah. Uh huh. Yeah. ni nene dade, dinyo diwaga, kikens, koko ni Papa mlacha na yo khana kiso yo bo khamon do Yeah. Uh huh. Yeah.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 et www.cefas-du6sénégal.com ou bien wwwe du Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Uh-huh. jàppale foofu la xale day jàpp tànkam déggal ndeyam torsootu ndeyam lu ko ndeyam wax mu jëfe sama góor di la dàq ñu ngay daw. a fen damaa nga xam lu ma ñam ma daw. dina koy dina koy nekk eh, xam bu awoon wala foofu lu ma war a def kenn du jiital sa baay nga nekk si ginnaaw. waaw saa a demal. waaye yow. ah yaa ma gis nga nu ma ma la gunge Yaakou. waaw. ma ñëw fi ñëwee gi dina la ñam. eh xoolal damay ñëw ko ñu snap doon. dama lay waxaale. saa yi waaye bàyyi dafa am lu ma lay expliqué bu la arrangé non non sa wet ma c'est personnel. ok. kaay bi snap. saa yi man sama xool bi neexul bàyyi nag. ñànk man heure bu ma dugalee sama story dañ ma lay laaj te damay bëri ay vues bu ma yàqal loolu bul iñaan. yéen a jël ñu wér ñu di leen di leen di leen def ci affaire loolu loolu gars yi ñu ngi koy tele. kon yow nangu nga ne wér. waaw. Hmm. waaw. waaw gis na. na na gaaw de. lan nga sama story yow. wala. sama story ñiy suivre sama snap. story. waaw ñi ñuy story.

ma ah dugg la. dugg jiitu ma maa ngi ñëw. eh pour lan mën nañ dugg ci biir nas li ñuy nas ba pare wala jëm ci biir suñuy ginnaaw nga may la ñëw kaay jox jox ma la yoo xam nga sama ji yoo xam nga ba mu juddoo ba léegi mosuma tooñ damay bañ a tooñ nag. ku koy tooñ. waaw bëgguma français kii rëdd man maa ngi. maa dugg la man maa lay ñaan te yàlla fekkee man nga maa may hmm. dama lay ñaan te yàlla tax bu fekkee man dama man man dinaa dem àjjal may naa sama ajal. merci nga may ma nga may ma nga may ma sama la Dubaay bi yow demal disparaître la nga may ma. kon lijjanti la koy xool dugg de maa maa ngi ma ragal nag damay du ma ragal dugg de <laughs> fii fii ku fi dof dof moom li nga xam ne moom maa la gën a dof. Euh, dëkk coow day jeex histoire day jeex laa wax. histoire indi moo fi de. Hmm. man man man problème moo xasee ba dund doo koy jël. kon baax na yor nga sama nit nga sama jikko nga yor. sama nit nga sama jikko nga yor. du ma man du ma assassin sama diggante maa yow. prenez place ngay doomi géwél may doomi géwél. prenez place ku la laal laal. dëgg la ngay nabul ñaari yoon. Hmm. erreur la woon da nga am énergie. baa gaañu ma la. gaañ nga ma gaañ nga ma gaañ gaañu ma la kay du sama lettre seen. bu ma jàll loo may def. bu dee góor kay jéggi ko si sa morom góor yi li ñu def. fa saay may ma nag bu fekkee góor. waa goro. ñànku yow fàtt nga ñii de. waaw daal lee xool fatas xool tey su ma ko jaafoon dina doon dina doon ñam bi. yow mii nag gaañ nga mu baax. keroog dama waaw kii Fatas bul daaj sa Fatas lan la. eh. yow kay ibi buntu bi ba gërë pataas. Euh, coow day jeex coow day pataas. fii laa romb mu dëgëral sa fit bi laa noq fit. bi dë. ma excuse moi. boo ko laalee sama xol ngay laal. eh ñaam kaay kaay kaay. góor da ngay dëgëral fit. dëgër naa para toogal ah, fit bi. toogal. du ko eh, fit bi. tapal nga rek. Eh, mën nga bàyyi paa bi wala mënu ko bàyyi. kaa kaa dégg dëgg. toogal toogal kii. Mhm. su fuubul du wax la. léegi du ko xaar xaar bàyyi ko bàyyi ko déglu ah, ne. ok mm. ah, mën na ne. ndax pataas mii. Mm. du jonkoon si kanamu ñànku. du ko jaamu. Mm. naan day dañu xanaa yow loolu nga war koo rus. Doucouré. waaw Doucouré bëgg a sacrifier. mën naa ne. mën naa ne de. waaw kaay mu da nga mën a muñ eh. sama yaram eh. sama yaram dawul de. bu hmm. ñu nee foofu ci suñu hmm. ak day xeeñ ñi laay bañ. waaye su ma koy xaal ci biir. wallaahi. ñànk mi moom. ñànk yow tey ay puuf nga jël. gërëm. Euh, hmm. gaañ na ma sax dawloon na ndax ku eh, yàlla bu ñu mel nii. nga yeewoo ñoom. di fanaanoo ñoom. nekk à l'aise yow boo ñun day mel ni ku yore di newul këram kii. gëre seetlu wóoroon waaye pataas góor yàlla nga mm-hmm. man bu ma la tayilee mm-hmm. dama doon natt sa doole si biir néeg bi la ma wax bàyyi maak booy bi deux minutes mm-hmm. yow même pas trente secondes nga dugg tëj bunt bi yéen wóor ne man bu ma ko gaañee man maay tëdd. Eh, bu la gaañee. waaw mën naa koo gaañ. Eh, eh, dugg may ma lii naa koo ko man maay tëdd waaye moom bu ma gaañee dem fenn. pataas pataas. lii laa ci suur de. pataas réew mi lu ne xew na fi. ay eh, anaconda génn na fi. loolu dëgg la. ay gaal génn na fi. loolu dëgg la gaal. gaal gaal. Hmm. Uh-huh, génn na fi. lii challenge la kay xale yi di def waxtaane ku benn une semaine mu jeex génnal foofu sa jàmm na ñooy. naa la a leen de pataas mu jonkan ah. Eh, eh. benn vidéo lay doon bu dalee ci benn jigéen dootul dem. waaye ah, yéen nag yéen yéen na ma jàppee. wala yéen ne ngeen maa bëgg a jàppee benn buubkat boo xam ne ngay ne ci mbedd yi def yoo xam ne di nak suñu noonu maa lànk ba ku ma lànk la hmm. lan la la ngeen ma jàppee bëgg maa ma ko nungu de maa bañ ba wut ku ma bañ ne hmm. moom daal li ñu organisé woon hmm. ca lan ne ba léegi kay loolu lañ war a wax nag wérante nañ ba ba wax nu fa fulla wax nu fa fayda dañu ay kilifa lañu ñun problème terminaison la ñu am suñu départ day baax mais suñu arrivé xaw ma lan la fa mu jaar def ay genre ah, ah, ah, garab yoo mel ni kuy kuy wër. cat la cat la léegi nuy def. na nga ko teel temps mu ngi ñëw de mu ngi ñëw na nga ko teel temps. aleykum salaam. kin kin. kees bu rëb la kin kees bu rëb la kiital. bu baax kit kit. daaliya ah eh. daaliya. rumba daaliya ah daaliya. rumba daaliya. daaliya. ay daal <laughs> prenez la place. tey du ko rek loxoom càmmoñam bi ku ko mos a yëngalal. du ku du n'importe qui laa yëkkati sama loxo bi lii lii lii lii nii ñun. alaamaatu. <laughs> daal li def. bàyyi na ci jàmm. giir gu baax yombul. ah déedéet mu ko ci àdduna. balaa nga koo xam nga nekk ci situation wala ci catastrophe. mu ko ci àdduna. def yaa ngi ci foosu ngiwal. xanaa daal di di di la baalu àq rek teewut ku ñu baalu le. àdduna noonu la àdduna noonu te xam nga xale yi li ñuy def ñun mënuñu koo def mm-hmm. xale yi kay ñoom ñooy def seen yëpp yëf tooñ xam nga nu dugal ñun kilifa yi ba dugg ca mm-hmm. ñu dem ba ca biir nag daal di eh, wàcceeku nii mm-hmm. xam ñu dañoo yor ay gone yoo xamante ni dégg nga maam yàlla xam na yàlla ah. da leen teg natt ah euh, loo xam sax ñun su ñun la ne ñun africain ah, rawat nañ ñu sénégalais kay suñu énergie dafa bëri ah, mais du yàgg du diire waaw mm. du diire mun na noo tàng léegi daal dëkk bi waaye ñun ñu ci waat ndox fay lakk gi ñu la mi noonu la ñu yàlla bindee bu hmm. ñu toppee suñu rythme ak suñu suñu suñuy démonstration ci koy policier li ngeen wax li ngeen wax li ngeen wax lay dëggal hmm. waaye man dafa mu lu hmm. daal nii boobu léegi nii wax dugg na nu bàkk mënu ci yàlla daa ñu sërëxal mënu ci daal teg suñu loxo dara damaa bëgg xam ne ngeen may doyee poulet maanaam jëm ci événement korité yaa tax ñu xam daal di. Uh-huh. doxalal événement bi dafa nekk événement boo xamante ni officiel la. sa année day ñëw kon mm. ah, de waaw maa te nee naan ku amul wéeruwaay da ngay neex bu max te ñun ñii ban àndee ba léegi dara ñaawut. des fois rek. ñu réeroo waaw waaw mënut a ñàkk mënut a ñàkk doxal yenn saa sax waa électricité seen courant ne kamaj coupé ah, ñëwaat. bul taxaw foofu demal. léegi. Mm. comme Korité gi ñëw na te ñun ginnaaw yàlla yow lan fi am. korte gi ñëw na te ku ne xam ne man borom kër la Pataas mi borom kër la ki amagul kër. déet yow bu demee noonu bu demee noonu amagoo amagoo amagoo dugal ma ci kër rek yow waxtaan ci waxtaan la nekk waxtaanu géwél la ku nekk bu duggee ci kër na na dugg ci kër bañ pare. waaw da nga ko héberger kër Pataas la nekk. nangu naa. ñu bëggoon nga jox Pataas mi ñaari ganaar mu korte ko ak njabootam mën nga jox ma ñaari ganaar du ma ko xeeb. waaw comme du kër mi moom képp la nga jox ko benn ganaar mi njëgu juróomi kon ginaar yëpp la ñuy ñàkk hmm. barke yu nit bi man doomu noobu la bu ma bu ma hébergé tamit am naa famille. Ah, dëgg am naa ay mbokku de. foo yore yow nan ngay classé ginaar mais yaa moom ginaar yi. kay proposition daal boo jox na équitable na équilibré wu na balance bi jaar fi mu war a jaar. ku nekk jot li mu war a jot. wala ñu def ko yëf wala nga bàyyi yëf yëf football rek. nañ ko def 4-4-2 rek daal di. déedéet 4-4-2. Ah, ah déedéet 4-4-2. ndax ndax ndax dégg nga li wax. Mm. léegi quatre deux ndax da amul. vraiment génn dama def ko deux fois trois. six. ba tey. jërë ngeen jëf ba tey. gis nga lii ngeen mujjee nii. Mhm. gis nga bu leen ko njëkkee woon dara du ko dàq. déedéet. yéen ay mag yu baax ngeen. Mm. Ah, waaye gis nga boo leen teyoon tuuti. Ah. àdduna bi yéen a fii gën. ñun ay dëkkandoo lañu tay bu ma yuuxu woon ci sama kër ge bala sama mbokk ñew yéen a njëkk a ñëw. maa njëkk a man maa jitu ma dara a waye da ngeen xawa a déréglé wu tuti rek ma ngi jégalu nak ci kaddu grawul avancé li ñu jox mo tax waxal waxal loolu li tax seen doom yi mel ni nak ci yeen la. Hmm. lii daali ci yalla la li olof di wax li ne ci bi moy xéñ ci sañ bi. ci daali. fi ngeen dëkk fi lañ dëkk. Hmm. adduna amul solo. Mm. Mm. lam teraanga yi may defal ñeneen. Mm-hmm. mën naa leen ko defal gis nañ ko. waaw te olof sax yàqal dara nag. Mm. déedéet mukk caa waaye nag gërëm naa leen ci dal bi. Mm-hmm. gërëm leen ci fulla bi ma gis ci yéen tey. ak fayda ji te yàlla na jëm kanam. ay kilifa ngeen nag ay kilifa ngeen soppeeku leen tuuti. moom daal noonu naa ne daal. bon nu sax ma am luma la diyee. inshallah yéen ñet ñi nag ku nekk dinaa la jox cent allahumma salli ala sayyidina muhammad. sallallahu alayhi wa ah du kuré sa estomac bi na nga fexe bu fi yëngu. baal ba dem kër ga. xamoon naa ne dina la bett ci moom mi. pareegu ma de. cent mille yàlla xam na ne. dama ko def ndax weeru koor bi lebaluma leen ko it abaluma leen ko it dama leen ko may daal yaa aay yaa aay ween ne tëb tëb tëb da ngay doyoo dëkku rek émission bi ma jàpp ni rek waaw moom moom jooy jooy nii man moom lu ma ciy teg xam ngeen mooy lan kenn du yow korité bi damaa bëgg yéen ñëpp ngeen soppeeku benn melo que damaa bëgg mu changé mm. falaa yam dama koy tëj

mais fenn nga yàqee wax ji rek mu ci wàllu col gi ñun ñun danoo am danoo am colère yow jox nu rek bul xool lu sol nit dañ ni booy xool booy xool li muy def ak li muy sol doo ko dimbali. day ñàkk kersa. loolu de naa lépp benn laa bañ. mais li nga wax ni suñu xalaat sa xalaat la yow. kay kay. léegi yow jëlal sama cinquante mille nga bàyyi ma mu dem cinquante mille génne naa la ci cent yéen ñaa naa la ku ma. Euh, daal noonu naa ni sax waxoon naa ko dukkuri mi ak ak ak ak ak ak moom mi mhm. euh, comme que sa borom kër nag ba mu kiiyee ba léegi ma waxtaan ak waroon ñoom nee naa fa dem yëg sama bul dugg foofu bul dugg foofu daal daal wéy wéy dugg dama bu ñu laajoon ah,

in a day, in your diwaga and a kick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 Cefas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 et wwwcfas du 6 sénégalcom ou bien wwwe du 6 Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh-huh. E e. yeah. ñanko gi fépp waaw boppam laajte naa ñanko yow xanaa gisoo ñanko yow boo xamoon ñanko doo laajte kan mooy ñanko baam laajte naa ñanko yow xanaa gisoo ñanko yow boo xamoon ñanko doo laajte kan mooy ñanko. sant yàlla bu baax. baax yaa ngi jàmm alhamdulilah toogal ni toogal ni. sant naka xale yi ñu ngi fi. ana soxna si. waaw ah, la génn nag. mbaa mi ci jàmm waaw ah, tey moom daa seeti mbokkam yi. mbaa mhm. yaa ngi jàmm baax. sëñ bi na nga def. Ah, nga. non non ah. tailleur la. ah ñawkat la. sama si téer. waaw macha allah mun nga ñaw de. bu fekkee yu may gis mu koy sol ci koñ bii. Mm. di daagu yaa koy ñaw. mën nga mën nga. mën nga dama ko indi woon pour mu ñawal xale yi. Mm. yaa leen bëgg a jox yéen daw ah ah ah bett nga wut ñawal leen bett nga wut moom du ñëw ay garaam bu bu faag yooyu moom lépp lay ñaw ah waaw waaw waaw <laughs> ah maaleykum ba maaleykum nuyu seen tante kaa leen ñëw leen ñëw leen ñëw ça va maaleykum <laughs> moom fu nekk lay génn nag bàyyi na wuy ma wuy ma ñaan ko dama nga dugal sama gars yi fu ma di bàyyi di génne samay secret ah ancien boxeur laa déedéet man maa nekkoon boxeur sama xarit bi man maa nekkoon boxeur ba ñaan ko delloo ko fu mu nekkoon lii nekkul day bu woon bu la neexee rek nga génnee ko. ah demal nga ñëw nag da lay da leen di nattal ngeen ñëw dama nga denc ko te nga ñëw sama kay dañ foog gisee waaw ah, loo ko dee sant yàlla ah bon waaw. Eh, bàyyi liñ bàyyi liñ balaa moo tax ah, ah. benn instrument. waaw bu laal benn instrument waaw. waaw nga leen ma se ñaan ko bàyyi li def. sois sérieux sa tante daa indi téer pour mu ñawal leen ñawu corset. waaw waaw waaw mesure la leen ni jël ay jël leen mesure. dina la neex de. waaw <laughs> kii daa baax de. waaw kii. ñi samay xarit lañu. waaw say xarit mais bu ko def comme tubay waal yi de. Ah. bu mu rëy. def ko ka waaw lu neex lay def def ko ka def ko ka. Eh, bàyyi la ñu yow lu la neex. Ah, waaw waaw waaw moom doy na. ñu ñëw ñëw. ñoom da ngeen ñëw. ñu ñëwal ñëwal na mu mi abasan soo rek na ñëw fii rek. kon day laay ñëw day laay ñëw day. Oh, eh, eh, xamul sax xamul sax dafa ñaaw sax eh, yow bul xam lu ne waaw la ñaaw bàyyi bu egsi rek nga sol dem ñaan déw na. waaw mun na. góor day ñax gaaw a ba ñax la nga yëngu waaw. kii bi moo tax ñu ne ji lu ne ni jiñ rek. baal na fi wala xaw ma dañoo yaay ñëw yaay xool fii baax na. fii fii lan la ñuy jiñ kay tamit tamit yéen lu leen di jiñ nga ne. da nga ne yambare téere bi neen da doon yambare. waaw kon nag da ngay def moo tax ma ne la. lii moo tax ñuy jiñ téere lu leen di jiñ. téere ba yambar la ay yow noppi teel sa gàtt gi te jël ma si lu la wax nga tontu ah ñaam kaay ñëwal ñëwal. pare xaaral ba mu pare bu yàkkamti yow sa temps rek. ah waaw waaye comme jël temps. di nga faral di ñëw ay taywaas ak yow ñëwal fii mbalim demal. ñu jëloo fii. yow eh, yow kii da nga kaa gën a xam métier demal demal demal fooy demal demal baax na. demal demal. déet eh. na bàyyi ma naka sama bopp la naka la nag yow tamit. Ah. Eh, yére bi na rafet. waaw demal demal am ah, mbaxana mbaxana. demal. Ah, waaw mbagg yi. waaye jëlal rek. waaw wàccee sa mbagg yi. jëlal rek jëlal rek wax laaj julu. Eh, booy foo jàngee ñaw. man. yëmbal bi man. yëmbal jëlal lii normal. eh eh mu jëloon ma si ñaan ku neexal deret ah. man yére la jëlul tubay. doy na ah tubay bu la neexee sama def ci mbaxana. yére la da nga koofati fii nag fii. waaw jëlul tubay te da nga koofati fii. da ngay koofati. ça la neex defal. jëlul tubay jëlul tubay te fii nga koofati fii. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw ay caprice ñoom waay la bëri. jëlaale jëlaale tubay waane jëlaale. waaw xaaral ma bind ba pare xaaral ma bind ba pare. sax waaye tam mu daw. mu daw de. kii yow kii di la jël ma si sa intérêt bopp. jëlaat yéen na de. waaw ah eh. waaw daal baax na nii baax na nii baax na nii baax na nii. Hmm. waaw. eh tubay waal bi toll nii. baax na nii wàllu. yaa ngi gis wàllu gars yi ñëw na nopp na mu. waaw de tubay bi comme dara. waaw dégg naa dara bu yaayam na sàcc ñëw lu ko. comme dara de. waa lii yabaate na. jërëjëf baax na ma mën. waaw léegi dama bu ci kanam maa ngi ñëw. moo la wooyee fekk borom kii ñëw ci si dégg nga. sa waay waxuñu la ñu ñëw na ay jour collecté ngay laaxatu di di wut fooy daw de. kaay kaay yow lii xaaroo ko woon. yow xamoon ba xam di nga am. yéen waaye xamoon naa sama wërsëg dina ñëw. waaw waaw nekk nag lépp du sol lu mu wërsëg man maa ñëw indi tëyër. waaw di la ñaw maa indi waat ba fii say ñaw. demoo ci tëyër bi yow. Ah, ah. yow dama dama dama maa fi. waaw waaw dama kontaan. waaw waaw waaw. ah, ah xarit la xam du changé mukk. Ah, waaw na kontaan naa. kontaan naa lool ndax lii nii yombul ci réew mi. xool nga sama sama sama njaboot bu nun mel. nga bàyyi kër yëpp ñëw ba sama njaboot ne ma ñoom ngay solal yàlla na la yàlla fay yow. waaw waaw euh, une question pour toi. Euh, fan ngay faral di tukki. man Maroc ah. Maroc sori lool wala. Maroc ah xam naa sori rek. fa waaw ma commerce nag laa def damay dem di yóbbu bagage. di jaay su ma paree ma jënd indi. loolu na la moo gën a bon lu bon mooy toog a def dara. waaw loolu day am na mais fii ak yaa ngi si euh, yow yow la tax ngay xaar ba léegi nangu am jëkkër. xam dafa doy waar. dëgg la liggéey bi daa nekk. Mhm. te gars maa ko téye nii sama. wa ah, yow ma xam ko. xam nga loolu est nga man bu bu ma population bi dégguloon dañ lay fal fii ci président neex na Ah, prise date ngay réew. waaw yow kay yaa bëgg yaa bëggul jëkkër wala gars ñoo ñemewul. bi papa yi mun naa dëddoo ba tey. amaatuma kenn. comme yow fu mu toll nii bu bu nit waa ju wax bu ñun fëgg sa kër mangi. la jabar laa bëgg nga ne ko maa ngi. may wax ak yow. ay ah a gaaw tege tembe du dëgg ku bàyyi garab garab bala maa ngi nii. taw loolu ci xamul bu bu bu yàlla defee ba ma taxalee si farata yàlla si xamet marché bi may togg doto def dara may togg may balé may raxas waaw bu ko bu ko defé kay fenn may doto am gëna may lay wax. waaw waaw bu ma la toogalee ceeb ba bay gëna may moy judd ci fenn may dé waaw waaw waaw. dëgg yalla am nga yéne bi. hmm waaye gerte. Mm. da maa tanul nak ndjay bu ëtt wuy ma bul xool ci yaram bi fu mu toll ni man murlo lool moy o atam ni ray mbëri bëri do la jang sa biir. waaw jang tout na way da nga gaag sa biir wallahi boolu ma la sànjaa fa nga xamni am góor. am nga góor. bëgg naa jëkkër nag lool. Mm. lañ naan naar baax na lool waaye waruñu buy jaay xorom. waaw loolu la waaw léegi wuy ma boo xool si facial boo xool si facial da ngay trompé man boo xool si sama facial doo ma nopp. waaw xool physique intérieure bi. waaw xam naa xam naa eh, daali man xam naa bu nekkee xaalis yàlla dénk na la ko macha allah teraanga yàlla dégg waaye bu fekkee nag physique intérieure bi mi ngi ak man mi ngi ak man bu wallaahi bu nu bu nu songoo nga xam ne góor yàlla péréñ. <laughs> waaw man dal xamna naa lay ñaanal sa soxna si ñen yàgg lool. lu la mais bàyyi ma man ma laaj euh daal man ngay dimbali ndax waxkat yi dañ ma xas dañ ne góor ben jabar da febar goor bu amé ñaar jabar mi ngi faju goor bu amé ñetti jabar mi ngi tané su amé ñeenti jabar nah, nak ci lay dogu wul pin te fu mu toll dama bëgg démarrer traitement yi. wa nañ ci waxtaanaat. ndax damay bañ. dala dala dama ci wal ay dal dal dina dina fa ñew jere jërëjëf dina fa jere jërëjëf. douzaine daal yow sans dépend ci daal yi nga bëgg man sama xarit nga waaw faa soo jëlee yéen amul daal dama lay jëndal daal dina dina utal daal loolu du dara baax na bu la neexee sax saag yooyu sa gone yi di kii nii waaw am naa jënd ko jëlee ma jëlee ko di ma la ñu rek oui ma ah, ñëw bu ma borom ah. bis bi day ñëw te moom laay moom damay xool balaa moom waaw waaw waaw xam naa bu ma doogoo par rek naa fa ñëw soobee. sa sa papa jàppale ko waay ci ci ay silip moom soxla na ko trop waay. yow da ngaa xamadi yow da ngaa yow da ngaa réew mboon xamoo ko ci jërëjëf jërëjëf. soo ci ko ci waay. ña di yaru sa sago. dégg nga nekkul loola bëgg wax rek génne ko sa làmmiñ bi ah sa silip baay noo koy tuddee. ay ay eh, eh, xam kañ laa gën a sol silip. lay sol damay tëmbal noonu laay bàyyi ay ay ka nopp téel sa kat bi dama dama si biir après na na na waaw sa tante ji ah nekk si këram gii nekk fa moom kase ak doomam jigéen ji ah pataas mbaay ak ah, ah, ah, ak mel ni danoo danoo ragal moom laa bëgg son ko takk ko wax naa ko de ah yow ah laa bëgg yow da nga da fit loolu la yow bokk amul yeneen bu ragal amul amul yàlla du yónnee ragal man kat bu amul fit tooj ku ragal du nekk président ku ragal du nekk du nekk tus. déedéet am ragal baaxul. déedéet baaxul waaye tamit nit day xam boppam. <laughs> moo tax gis nga. xaaral ma la très bien très kii. Hmm. même soo ko waxoon foo ko baaxoon nii ba mu takk la. waaw ah. ah? man maa xëy dem takk. déedéet moom moo lay takk. Ah. takk yow kii mënoo kaa takk. xam nga la mooy takk xam ñàkk. moo la jox kii. Hmm. moo lay hmm. ñëw fii waxtaan ak moom muul dem sëy eh, foofu ñànk loolu wax ji xam nga la laa bëgg fu mu toll nii moom lu ma xam-xam-xam yow yaa ma gëm xam fuuf ko moom waaw léegi nag comme temps en temps yow xaritam nga da ngay fal dem këram oh. mettre ma en courant ak moom maanaam ko sama diggante moom fexeel mu gën a ratax te réew mi noonu laa lay wax nii waaw man dama lay sëy yow yaa déggul hmm. may na ko ba fane mu koy teel mu yeewu jàkkaar sa kanam gi eh, ñànk de ba mu taxaw fi wax naa nee naa ko bu mu concentré sama facial na ko sama intérieur te jéem tële gàcce amu si. te da ngaa mën a dundee takk takk la musuwaal sa bopp. déedéet déedéet déedéet c'est que gis nga nit loo xool da nga koy gis ñaan xam nga lan la man ñëw ma fii pour nga may jox ay moral ay calmant xam la laa bëgg nga wa fe nga ma nga gëm comme lu ma gëm ni sa diggante ndaw si mën na ne ma tax ko mu nekk sama soxla. sa diggante ndaw si mënul nekk. ña ko gis uh-huh, nyango isaga nene dade dinyo diwaga ande kikens koko indaya nyango gife pa papa mlacha na nyanko yo khana kiso nyanko yo bo khamon nyanko do lake yeah uh-huh yeah nyango gihe nyango isaga nene dade Sénégal5.com Sénégal5.com est un site d'information en temps réel du Sénégal et de l'Ouest du monde. 5 TV, la télévision digitale numérique, où vous aurez de la politique, people, sport, éducation,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 internet et www.cefas-6sénégal.com ou bien www.e-cefas.com. Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. lan la lu xew. ah nit amul droit nopp calme bañ a wax. ah xam na tey lan laa santi ginaar. doo bul anticiper cortège gi. cortège gi bàyyi ko foofu ginaar ginaar yëpp du loolu posé fu mu toll nii. di xaar posé ah. waaw. yow daal xoolal comme yaa ngi woon si jën kon continuer si jën bu ko defee ñu namm ganaar bu ko defee cortège gi ñu ñëpp ñu lekk ndoo ganaar en en en ensemble. tey jii lu mu lay yàq. lu mu hmm? jëm utee ma ya man maa yor njëgu ganaar. ah waaw d'accord man maa yor njëgu ganaar. am nga tua. plein droit. waaw waaw. am nga sa plein droit. yi ka la sama di jaay mu dem mu dem fenn man mu demul fenn kay ku dem. Eh! ay eh, waay sa. waaw ñëwee Fama. tegal gi ah. waaw waaw yaa ngi la. xam nga waaw. waaw. ay kay de kay ka toog ka toog sa waay la taxulaa jóg de ngeen di xaar dugal jàllal waaw waaw waaye du kii kii moo xaaj ndaw si waaw waaw kii moo xaaj ndaw si moo am bayra bu kii ku nekk recevoir la ko si néegam bi ah waaw waaw kii kii tamit kii moo waroon indi xaalis wala du kii ah ah parce que aw ma carte man sama ma am mu intéressé wu si ndaw si laa xam man xaalis boobu oh, góor ñi muy dugal fii ñoom ñëpp a dugal. waaw xaa sa yoon. Eh, yow bañ naa ma gis naa nga toog adressé ma la parole. man ko laay waxat. dégg man kat gu ma ñaar te tontu ma man loolu la yàlla jagal si man waxuma li moo tax ñu naan góor bi tàkk soxna na xool ba xam seeni na dugg ci kër ba ah yaakaar tas rek laa ah jigul yaakaar tas rek laa man su ko jigul ak ñàkk koo bañ a jig fii ah, te jënd naa bàmmeel ba pare ñaanal baat man maay tuxu man maay tuxu kër gi mu tuxu ay ma pare la jox xaalis mu génn muy ñëw femme bi indi woo. mais Omzo Daara léegi. rapport boobu. ñànku ñànku. Eh, eh, ah, ah, lan la kii laa bëgg mu dafa tàng. daa jënd lu ngeen di fompoo bon bay bëgg a di jënd mouchoir di ko utiliser si néeg yi rek. waaw yow sa wàllu ñaaw na de. yaa yaa xam waaye même suñu jaam ci mu demoon bon ñoom bi da nga kaa xamul. laa bëgg nga puus. kii mooy ñuusu génn si. waaye yaay arrière eh, deux pas. Omzo Daara génnal fi ni ngeen noonu ngeen baax. waaw kii bu gën ca moom trop. waaw ah kii la parce que waa ji mënuñoo fi wax ñu wax xaalis kii ni ku mën loo kii jëlul topp. dafa des suñu yaakaar bu ñëw nga nga kii ba mu gunge sa waay la ni changé bu yàgg am soo daal génn fi. ma ne nga ñu sa génn fi nga xam ne passe ah, pas génnal fii. nga mel kii liggéey ko génn génn génn kër. bu ko lóoree de. waaw génn génn kër. génnal kër gi. waaw musul génn eh, gëj naa génn daaw. tey dama see daw xoolal. <laughs> saala yaay nder daw xoolal bul ci daw saala yaay coppat. kii day génn kër gi. Eh. ba mu ñus ko. da ngay resté sax dama ko ragal mais mais lu xew góor gi lan moo xew li problème xamul ma xelam <laughs> mooy nga génn kër gi laa wax. mais je t'ai rien fait man dama ñëw pour seetlu ko. moom laa seet si ñu doon feesee keroog a fa la toll. waaw. mais loolu dinaa si ñëwaat tey ñëw ma pour. non da ngaa war a ñu avant ngaa def ci lee nga ñëw eh, lekk na lii ba pare. Eh, eh, booy doxul xaalis ci. booy kii bàyyi Elisa bàyyi Elisa. damaa bëgg nga noppi coow li muy bari. booy génnul ko ànd ak reefee. ànd ak reefee ngeen koy ànd ak reefee. waaw génn kër c'est qui rien fait il parle de quoi euh, ah, a dégg dafa réew. waaw yow ana xaalis jërëjëf booy yow ban xaalis pour yéen dama ñëw pour seet si madame Ba. nga seet ko foofu góor si eh, boo boo si koor nga seet si bëgg bëccëgu ndax ma ko jigéen ah, ah. astafirullah waaye mi la daj laa yemale gis nga kii gis nga xam nga kii xam nga kii la mooy dagg xol bi instant ki yow li nga bëgg ci aduna du am. Euh. yow bo soñon malay fat ci neeg bi. Euh. waye dang koy namm nak sa guddi nga fëgg sama palanteer man ma la seexlu comme ki la doon bañ nak mu jot ci da ci jot pour tay yàq eh chaque jour nga fëgg sama palanteer bi waye li ci ñi di am do ko ci am. eh oui ma eh, gis nga xassante gëna a ñaaw làmmiñ la rek. fu mu toll nii danga may jëma duggal du ma am problème ñaaw làmmiñ yow yamal yow man sa jot. lan la ah, fi nga nekkoon ta la quoi génnaat jaara o ma jotu jaara ki lay fël rek. o ma jotu jaara waye yow da ngaa neex a yëngal toowal. eh kaay xoolal kay kañ dem nañ dem nañ dem quoi pour pour pour. waaw nañ tànn say kàddu nag. kii la balaa génn kër na génn xaalis yi. génnewul benn xaalis ndax yow xaalis bu muy génne. waxuma ak yow maa wax ak yow. waaw waxuma ak yow loo ci bañul tey bañu ma ko ci du sampati nga. waxuma ak yow du sampati nga maa wax ak yow. waxuma ak yow man maa wax ak yow. bàyyi ma man maa wax ak yow. du xam nga ma du xam nga ma awa taxawal. awa lan la lu xew lii lan la ay wax la ay wax la aw noon awa tey awa ëpp na ay ñoom dafa laaj ñoom ñoom ne bu waaf waaf waaf waaf ñoom waaf waaf ñoom awa tam waaf ngeen di xam ne yéen hépatite kenn du awa ya awa daw eh bay may ma sama jàmm hépatite hépatite do jël da nga wax af liya bu ñu ngeen da ngeen di fiis ko eh bay na gën na gën na gën na gën na gën Up. Oh. Yeah, look. Kai, Kai, Kai. Oh, oh. Look at Oh, oh. Wait. Oh. Tengok dia, lebih dekat kita. Tengok dia, dia mana duit? Eh, dia ada pon. Tengok dia, tengok dia, tengok dia. Baik, baik berhala. Nama itu apa dia? Eh, sama ni, kena, kena, kena. Mak, mak aja ada lagi tu. Kau tu makan sini. Kena, tengok dia, makan sini. Kena, kena, kena ni. Baik, baik. Saya dah punya fakul dia. yow ya da ini do ni aw aw aw ni jaay aw calme rek aw ma lu may calme ah aw aw yow ma may calme xam nga la arrangé ay dara xam nga la laa bëgg ni jaay nga téye sa jëkkër nga génn sa génn nekk moom laay wax moom laay wax ay ma arrangé ko ni jaay gën a nekk waaye yow mën nga maa may wala mënoo maa may moom moom laay waxal nii pour mu génn moom laay lijjanti nii bu soobee waa bàyyi. ay nit yaa génn nit jaamu nag waaw doo génn nag yow luñ la def foofu yow yaa wax ay aw lijjanti ko indi téléphone indi téléphone bi lépp génn sama de génn génn génn génn génn. oh awa seet. xam nga lan laa bëgg bis na ki tàj jaamu ci biir kër gi. kan si kan dafi am yéen ñep ñom nga waaye du man yéen ñep la wax man. yéen ñep man mëno ma munoo mu mëno ma la kalmu. Eh, eh eh ndax la dama ko xam. wayu ngeen doon eh dama leen la bon li waaw dama leen lëppoon lii. El Hadj Ba lu de. bul wax ak man waaw du bul wax ak man foofu laa yem ak yow. sa kanam ne man la doddo euh kay wax ak mom wala man. yow da nga ñëwaat pour xex wala. xeexuma xeexaanu. booy xeexuma xeexaanu. lan moo xew. ah dañ la bàyyi takk. laaxu akubar. Ah. gis nga moytu len nak ko xamne ne day merdi ni bu jappé day ray yow man ci man ngay dug ah, waaw nak jeex na génn naa ci yow indi bi sama gan yow ay dégg nga waay yow dama la bàyyi dégg nga waay yow tëlee dinaa leen bàyyi yàlla naa tudd ah, bandi ngeen ma doon jaay bandi ngeen ma doon jaay ak dégeese jeex na bés ni ngi tey ku fi génn ma walla ni dege mu xaj dama leen la sama ci ko ku ne di wayu wayu yow yaay ruxkat bu mag bi kay duma total li kay ko ñewé na la total li ba nga xamni total total lay ay moroomam xat téléphone bi lekk na sàcc ñanko ngi xeex ñanko ngi saaga yeah uh -huh. yeah ñanko ngi xeex ñanko ngi saaga nee na daa dee Inyadi waga Andaki kikens, Koko indaya Nyanko gifepa Papa mlaja na nyanko Yo khana kiso nyanko Yo bo nyanko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 internet et www.cefas-du6sénégal.com ou bien www.e-du6cefas.com. Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh -huh. E yeah. ñanko ngi xeex ñanko ngi saaga nene daa dee ma di waaga yóotu karab ba rek daa di jël li mu nekkee toll musul woon ba ni muy yoree soxna. musul woon musul woon. man kay Fatou Fatou laa yërëm rek. waaleykum salaam. mën naa. mu ngi ndaw. na ngeen def. na ngeen def coono. bisimilah toogal. ah. sama yaay moom ah di. sa yaay lu mu wax loolu. nee na dafa am benn financement bu bu fekkee intéressé na leen ngeen ñëw wis ko léegi. ni loolu bu fekkee intéressé na moom la. dañ laa yónni wala dañ laa wax loo dañ laa dañ laa wax nga. lu ñu intéressé lu ñu intéressé lu ñu intéressé lu ñu intéressé lu sooy ba nga naan ñëwul wuyu kay. financement am na waaye li ñuy intéressé ñun doomi géwél lan fu ñu bëgg suñu loxo xam na. financement xaalis bi xaalis la rek. waaw du financement mën naa am te du leen intéressé moo tax moo. loolu soo yoon newu ci. Papa Doucouré soo ñëwul ñëw ma sonal. ah Faras Faras Faras lu bu bu bu ñu xam man li kay loolu ma jaaxal ko ma ne ko ah ba pare gëj li ba pare boole ci rii. Eh, di dem eh, woor nga ay rii. jógal déedéet nañ dem li jënti waalo ko ca ndeyam. da jarul xuloo déedéet dinañ jël financement bi sa xeex la yaa ko moom nag. du xeexu ma dama lay xeexle. bu ma xeexle maa ma xeexle combat bi man la ah bu xeex yow kay yow kay bàyyi ma sama xeex ah yéen jigéen la. ah kay. waaye ah, nga am jàmm bu baax. dégg nga naka loo ne. sant yàlla bu baax a baax. yàlla na yo nag climat bu tërëti. gis nga ko rek. ah jàng ko daw yaa ngi tëdd. utal photo bi. loolu la jigéen da day toog si pegg ndayam. <laughs> ba waa bi baa fekk na fa ne la coppe jiwale ci këram. jërëjëf. <laughs> ñaka soxna sax. ma nga fa. maa ngi ci jàmm ci jàmm baax a baax. alhamdulilah. bisimilah. ah alika allah. macha allah waaye yow jàmm baax. ah rek alhamdulilah soo ah koor gi de moom ah xam nga yàlla moom. comme moom <laughs> mu daan ne comme weer yi la ak ñaar mu jël si benn weer daal weer bi képp laa laaj. te bu ko neexoon ne journée bi bu lay lekk. dëgg la boobaa dara du ko si fekk. waaw boobaa dara du ko si fekk. walaay dina doon waaye daf noo sàkkal ay heure rek ne eh, loolu. waaleykum salaam wa rahmatulah. donc de dugg la daal. waaw yéen a ngi ci jàmm. ñoo ngi sant bu baax a baax. Euh, daal yow. waaw Fatas. nu ngeen def. Mbaye. Ndiaye Ndiaye Ndiaye. daal nañ def bàyyi jàmm nañ def bàyyi jàmm lii daal. bàyyi jàmm indi la baarikal indi la baarikal. alhamdulilah. naka koor bi mit na tey de. alhamdulilah ah day na waar de. gone gi de moonu. saalit naa fa sax. moonu woo woo woo woo amul yar. ndax man ay kilifa la. man ma de woo na woo ba am yar. waaw ah, nii ma. ñoo dem kaawu sa ngay si teggi. ñun ay kilifa la. Hmm. booy ànd ak ay mag ñoo xam ni ñenn ñi ànduñoo ak ñenn ñi. Hmm. mun wax hmm. kii bu ñuy kër giiwal bu ñuy di nuyoo. ni salaamu aleykum sama yaay ma yónni. nee na financement la dafa am. na yem foofu. lan mos si yoonam mu naan bëgg nañoo lu bëgguñu.

waaye xam nga ne man loolu mu leen wax du ma leen ko wax. déedéet déedéet ah day gone rek. maa ngi jéggalu tamit bu baax. amul solo amul solo. sa melokaan de seere nañ ko ci réew mi. seere nañ ko ci carte bi. maa ngi ko déggee ñu naan doom ja ndey ja. Mhm. wolof day juum. waaw day juum léeg-léeg. ku baax a ngi nii toog ku baax a ngi nii dara dara dara jomb la. yàlla sa jàmm yàgg. maa leen woolu woon. sama woo bi nag tey mhm. damaa bëgg ñu waxtaan. comme que ñun ñëpp ñoo bokk dëkk ci koñ bi mhm. te ngeen di ay nit yu baax. Mm. ay kilifa yu baax ngeen. Mm. sama financement bi may def nag ma jéggi bi naan ndox jéggi kàmb. Mm. Ah, financement bi nag ci deux cent mille laay commencé. ba ci un million. Ah. waaw. waaye nag. dafa am sartu may teg ndax xaalisu nguur laa yor. xaalisu gouvernement bi. ñoom seen loxo nga si. seen loxo nga ci. Ah. ndax xaalis bi damaa dem ba police teg samay kayit yu la yàq ku ma lebal danga may fay mbaa ñu dëgg la. ñaari balaa maa jox yenn sama xaalis bii damaa bëgg xam ci yenn projet ngeen ne. Fatas. Hmm? bëggoon naa daal xam tey bu jëloon xaalis bi ci ban projet moom da lay xalaat nii hmm. waaye sa xaay sànkut de ndax man doon naa nit koo xamante ni samay projet dama ko mus a teg hmm. xam nga dañ koo xeeb muy njaayum géej am solo waaw njaayum géej gi dama bëggoon jël sa dugg ci njaayum géej bi. dem ba casamance bu samay saafi géej andi yóbbu ca marché ba di jaay bu ma mënta am géej gi dugg ci njaayam quartier ya, mi am arme bi bu ma laa damay dugg ci njaayam quartier mi ndax ndax ndax ndax didim gi dafa métti xale hmm. yi léegi seen yaram mi weex na hmm. te duñu diw bopp yaa ngi garaas lii mooy sama projet ma jërëjëf ci projet bi kontaan naa ci ah hmm. léegi yow naa laaj karité karité karité karité laa bëgg a financé waaw waaw fu mu toll nii jamono ji ñëpp tooy daanaka daal bëgg naa songu njaayum karité bi. Mm. waaw te karité moom suñ suñu consommé local la. Mm. ñun ñoo moom ko xam nga tubaab bi xamuñu karité. Mm. te ñun ñu xam karité xam nañ njëriñu karité. ba tax daal si karité laa bëgg a investir. ci karité nga bëgg a daw waaw. léegi man li ma wax kon du consommé local. kon sama sama géej gi du consommé ah, local nga bëgg a wax. ah. Euh, jërëjëf ci dal bi. sa fil conduite baax na parce que da ngaa dikk ak ñun ci argument yu leer. mbiru état la. police ci biir. nit mën na ci tëdd kaso mhm. muy kàddi gor mhm. te gor dëgg mhm. ragal naa dugg kaso ñun ku ñu ku ñu ku xam dugg rek xam ko cosaan dama bëgg indi li fi newoon di ko jaay fël-fël ak aji ndàmbatu laa bëgg a jël conseil ko aja dans la foulée dans la foulée dans la foulée dans la foulée action ko xam dugg rek xam ko ci ciosan démb li fi xam bari na. sa xal demul ci fulfa hmm. aji namatu na. fulfa hmm. fël ak aji namatu la bëgg commencé jaayaat. waaw ba ci ma ñun la bokk. macha allah nungu naa de. teral nanu nungu naa. sagal nañu nungu naa. te bëss bo bo bo boo xaar bi sama lox hmm. bénéfice bi 100% lay génn fulfa ah! euh damay yégué fu. du ko wàccee rek daal di mottali. bu bu bu doog fu man. ah dama dama bu dugg su ma nekk. yàq waxu jàmbur. yàq samay wax yàq samay wax. déedéet ndax bu dugg samay wax. di yéeg fu may yéegee fu may dugg. Eh, man tay xulóowuma. kii nii ak jamono ji nu mu mettee mu woon ku nekk suñu ko daanee kaay leen ma jox leen xaalis liggéey kii jàmm ko tax a jóg. ay noobu lanu. gor dëgg nga. bu naan di doole. diir yaa ngi ko bu def day métti jigéen day gaaw ree ndax jaar day bette te boo suur yow mi yaa tax ñuy wax hmm. te kenn ndur mbokki jàmbur kat kenn ku nekk say mbokk ngay nduroon. yeah. Uh-huh. yeah. ña ko ngi xeex ña ko ngi saaga nee daa dee di ñoo di waaga ànd ak i gens kookoy daaya ña ko ngi feepa boppam laajte naa ña ko yow xanaa gisoo ña ko yow boo xamoon ña ko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

sooy wool nga wool nga wool dëggantaan yàlla danaan kii dafa wool day xool affaire yi mu teg mu wàññi ko dëgg waaye yow li mooy da ngaa jàpp ne da ngaa wool te wooloo loolu tax affaire di gën a métti. waaw ñaaw kay kii daa wool yow mënoo bàyyi ni nga mel. wo saa day wool ba fay bi di doon naaj. yow moom da ngaa mën yàq der yow moo tax doo changé. waaye fu ñu waxee lamb fii waaye loolu. tere naa ko ba taay pare saa doo fekk butéel bi. laa fekk. xam nga gën muy génne nga am moom muy génne lii lay waxati. Eh, da ngaa le ma wax butéel bi nga am ah, da ngaa lew de loo xam ne nga loo war a amee xaalis am xaalis kii bi da kii. waaw sérieux la yàq nag di ñànku dama bëgg ngeen déglu ma sérieusement sama yaay dafa benn financement bu am doole sax boo xam ne. financement maanaam. financement maanaam dafa bokk ci benn projet boo xam ne projet boobu gouvernement bi ñoo leen financé xaalis. xaalis léegi ñoom. ku ci nekk da ngay dem sa koñ. nga nga xool ñi ñi nga xamante ne ni bëgg nañ liggéey mais seen loxo jotu seen ginnaaw. waaw ñu financé la léegi bu la financé da ngay liggéey soo liggéeyee après nga fay sa bénéfice yow yaa ko moom. yàlla ni. ah sa loxo na sa ginnaaw. kon yow jarul na lay finance wax yow. ko. bu ma yàqal bu ma yàqal. na sa ginnaaw wala jotu ko. koo dem rek. ah doon na ko waa jot léegi damaa bëggoon ñu dem ci sama yaay pour mu lebal leen xaalis mais nag. wala maa jël benn risque. da ngeen may wax yow tey jii bu leen joxoon xaalis. parce que financement mi ngi tàmbalee ci deux cent mille ba un million. ah un million. yow ñaata lay jël. ah ñaata lay jël. cinq millions. naa jël. xoolal yow boo fa dem naan cinq millions. deux cent mille day sëkk. deux cent mille day man man ma wax. cinq cent mille. waaw deux cent mille. yow deux cent mille. par cinq cent mille. suñu laajee deux cent mille ay ñaata cent franc yooyu dina ma dina ma dina ma. doo ko demoon fi rek fes. may ma jàmm déglu leen ma fii man li may wax dafa ma intéressé léegi avant tout balaa may jël benn risque da ngeen may wax tey gi sama yaay bu leen financé woon ban projet ngeen am ci xaalis boobu noonu. waxaan. am nga. bee xaaral ñànku man léegi ci yow laay commencé. commencé si kii ah. ñànku commencé si kii rek commencé si kii rek. Ah, si si daara mu njëkk daara. bee Macam level-level ni. Level mana? Ini yang mana pun dengan bentuk. Oh, kamera. Inferno. Wow. Leo. Wow. Hong Kong. Wow. Okay. Wow. Excellent. Bayu ni kita tu boleh. Lagi yang lain. Mà ai nét lại vậy? Quá, quá thế luôn. Lên lên lên lên lên ba. Bắt tay không là đau bốn đấy. Ai nét rồi. Không ạ. Rồi bây giờ ai nét rồi.

mën ngaa commencé nag di jaay. ndax soo reyoon ñooñu ñu nga dund. soo reyoon ñoom. mënoo lañ demal marché di nag di jaay. ah waaw da. bu ko soog loolu yëpp nag da ngaa wax sa idée wax idée li mu wax idée la de. non gannaaw li mu wax métti ma. bu ko xeebal léegi nag instant bii moom gën ngeen maa rassuré. léegi xam nga laay def damay dem kër nga waxtaan seen maire bi gën kaa convaincre nag xam ngeen sama yaay def la yéen neen. waaw xam ngeen mu xam. léegi bàyyi leen ma dem waxtaan ak ñu convaincre. est-ce que dinañ la wàll. man dinaa wax ak moom rek bu fekkee nag li ngeen waxanteeg man loolu ngeen di waxanteeg sama yaay. ak respect amul dépassé bu fa nekkoon di ko fii ba deux mille. trente-sept bu leen ko faal yéen yooyu ñoo ko naruñu laa financé xam nga loolu. waaw waaw. parce léegi maa ngi dem moo ne bi ay 30 minutes yooyu. mën ngeen a ñëw dina fekk moo xam nga xam ne ni ngeen di ñëwee fi ngeen jaar ak man nag ngeen jaar fànn bu ko defee mu jox leen nag la mën a financé sa bopp après ñu mën a sëy parce que tamit li ñu bëgg a yaa ci des. waaw maanaam ku la xañ sëy dina la jéem a takk. waaw léegi man maa ngi jéem a yegg kër. sa soo demee rek ñu ñëw. ay 30 minutes rek. waaw mën ngeen chronomètre 30 minutes rek. baax na dégg nga ñànk bu leen murus doon. waaw jox la kii kay. waaw man woon. yow doo wax war naa wax boo waxee. yow soo waxee fay wax suñu am dara. waaw wuy ma man maa ngi def. waaw léegi kon après maa ngi leen di xaar. waaw merci. bébé ci kanam. ñaan su demul. te te su lus naa la nag waaye jël solaay ñi ngay sol gars yi bàyyi daa leen ak kool gi. sa yoon neew ci. dëgg waaye sa bët rek fu muy ñaa ko jaay ñaa ko jaay lépp soo ñaa ko jaay dëgg yi bëgg ñaa ko jaay affaire bi bu muy doog jàpp yow. affaire bi bu muy. lu muy doon jàmm. dama dama tax. jàmm ku ñaay géej koŋŋ. jàmm ku ñaay géej gis. jàmm ku ñaay géej bër. jàmm ku ñaay yëkkati jiw. yëkkati du yëkkati du wu ya. man fay naa. waaw damaa ba may ba may ba may ba may kii rek tàggu mbaal. te xoolal xam nga. yàlla na yàlla baal ci jéggal ma. xam ko ni loolu. kaay na la. dafa kaay baal. kaay keneen ka mel noonu daa gaañ. waaw waaw ku nit ku gaañ kenn du ko nulaale nit loolu baaxul état yow sama sama sama gaañoo foo jëm. waaw waaw. dañ dem dañ dem kii ëllu na. Mbaye fexewu bu mu mën di nag. war soxna su waaw baal ma jeex na baal ma loolu man dama koy jël amatul boo bañ booy booy waaj a daanu ngay mën nekk xaw booy waaj daanu bu mel si daan booy mel dégg nga. alhamdulilah naa ko am. alhamdulilah sama góor yi yàqu na. waaye. yow sa bun gerte gi nga xam ne yéen a bokk gis nga waaye doo ko doo ko bàyyi xel. yaa ngi ko yaa ngi ko moo ko wax bu ëpp. waaye waxu. Yeah. Uh huh. Yeah. Nyango ni khe, nyango ni saga, nene dade, dinyo diwaga, ale kikens, koko indaya, nyango ni fe, pa. Papa mlacha na nyango, yo kiso nyango, yo go nyango, do like Yeah.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 internet et wwwcefas du 6 senegalcom ou bien www.e-du6cefas.com. Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh -huh. yeah. ñaa ngi ko saga, xeex ñaa ngi di ñëw di waaga ànd ak salaam. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. yow Feda. waaw. laa la la. comme ni ma la ko expliqué woon tout à l'heure ñàkkoo ngi nii daayaane ngi waxtaan nañ te wax dëgg fa yàlla wax nañu projet yu am important mais xam nga duma mën di la expliqué seeni wax. tuure teew ñu ne daa ñànku. waaw léegi li ñu waxante woon ko ñoom daayaan sànq laa bëgg nga wax ko sama yaay pour affaire financement bi comme ça moom. mu mën leen a financé ngeen dem liggéey ndax tamit taxawaalu bi tamit neexatul daal. non waaw nga ko nga naa ko. li ñu waxante pour bu la financé li ñu ciy def léegi wax ko ko moom mu dégg ko pour mu am pour mu nem ñeme laa financé. waaw waaw léegi xam nga man lu ma leen di wax man damaa yor xaalis di financé ñu bëgg a liggéey bëgg dara ci seen bopp te yéen nag ay xale ngeen. xaalis bi nag sama xaalis la waaye xaalisu nguur la dama am ay kayit yoo xam ne dafa nekk ci police bi ku ma lebal sama xaalis soo ma fayul dama la yóbbu police te balaa kenn du jot xaalis danga may garanti ñaar ñetteel ba damay xam ci yenn projet ngeen di yëngu pour ma jox leen xaalis ndax li wax dëgg yàlla adduna bi amul solo ñun ñëpp benn lañ. yéen boo leen xëyee liggéey am dërëm denc am ñaar dërëm denc bu yàggee mën ngeen a changé lii xalel la rek day day passé moo tax daal ma bëgg leen a dimbali. léegi na xam nga lan laa bëgg ku nekk wax ma lan mooy seen projet. ah waaw moom xam nga yàlla fa def am naa ay projet waaw am na ay projet yu bari yoo xamante ni waaw si sa man si métier boo xam ne jàng naa ko ba mën ko sax dama kaa bàyyi woon sax waaye dinaa ko ci daal maanaam koñ bi avant nga ñëw fii fossé Fakalane bii de seen fossé Fakalane fii. liggéey la waaw. léegi li ma bëgg mooy nga lebal ma jënd peel bu baax peel bu bees sax ak ak buum waaw. <laughs> ma nag ma wax sama folo. li waxante woon laa wax. waaw projet boobu. waaw waaw dégg nga. waaw loolu laa bëgg. projet boobu laa laa bëgg. xam nga su bu baax daal ah bu baax wala ñaari paire dégg nga bu may waxee ak paire bu may gasee ah ma amaale kii ñu siwo ah ak ak ak ak buum. yow boo gasee par dañ lay non non damay fay dama leen dama leen dama damay damay xool. man projet nga. a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala xawla wala xuuta illa billahi aliyin asim li mu ci seytaane ñu ne tiwee koor man médecine laa bëgg a def man man am naa fi médecine waaw sa projet yi nga doon dama bëgg direct may opéré rek di ñëw ku feebar ma dagg sa loxo hmm. sa tànk bu ma moo naan. ma nekk est-ce que doon ci Kazakhstan. yow defar naa bëgg def médecine lan moo si yoon financement bi li ñu waxante woon kër ga yow xanaa ñànku bi bu wérul sax ba yow nga mën a nekk nit yow li mooy sa projet yow kon daal man man daal man man ba ba may dee nii rek laay di du ma tekki dara ci àddina. kii la ma waxoon kii la ma waxoon Dior Dior Dior Dior fa xamoon jàngul lool. ma wax jàng naa ko. munaas waaw munaas. waaw munaas. ay munaas kañ ngay nite. dëgg munaas yow kañ nga yewu wax dëgg yàlla. munaas ban xale bu jigen nga gis mu nelaw yow ñan la yaangi nelaw yow ma da nga ko man sama xaaliss bi dama ko jël ndaysan dama ko dem fek garab garab ma witti garab bi ñew ku ñew ma jox la ko. nga indil ma sa ñi yow am nga jom yow ak ñi yow da nga ni ñii doo tàqali ko ñoom sa ñaari tank lañu ba tey baax na yow la waye man xam nga dama jël ma sama xaaliss da jox ko xamne day def sabilillah ndax man joxu ñuma xaaliss la sabilillah ki neena da bëgg dem opéré waaye yow bo jangul médecine nooy opéré do Sénégal léegi lépp am na ndax jàppoon nañ benn médecin temps yële baax la. muy faj corona. waaw waaye man man sama xaalis financé wul lool léegi xam nga nu ñu def ngeen dem ba beneen yoon incha allah ndax man xaalis bi moom bëri na bëriwul deux cent mille lay commencé ba un million xam nga loolu mën na liggéey. waaw ci jamono juñ toll. waaw kii ñaar la waxoon. 500000 waaw yow ñaata nga. ñaata nga ma ko. 200000 man 200000. yow 200000. waaw kii 500000. waaw yow sa liggéey xam nga bi safi di laa la. waaw mënuma laa jox. dama maa ngi jégalu. yow maanaam liggéey boo xam ne da ngay def concours te def ko mënuma leen a jox maa ngi jégalu. ñaanku comme que yow nee nga dof nga ba nga aidé du wér ba dof ne moom yi ñaar àndaat leen dem te xam ne fii kenn du leen fi. maa ngi jégalu dem leen ba. baadoo lay ngeen doon xamoon naa ne bu ngeen fi ñëwee toroxal. ah fii wax fii jaru dugal fii ma eh. ku ñuy lebal nga lebal ñu ku ñuy lebalul nga bàyyi. ah léegi lebalul la bàyyi mu naas maa ngi mel wala wuyu ma dem leen ba ngeen am projet ngeen ñëw ma lebal leen amul. Ah, am nañu projet xanaa kay bu ñëwee non su ma ñëwaatee projet bi laa lay wax su ma demaatee bu ma ñëwaatee projet bi laa lay wax. kon jarul ngay ñëw. waaw ah, fii fii fii ku gerte sa yaay aya. ku gerte. yéen. aya ah, ñu gerte. dama leen wax dama laa bëgg a fas ma dama ku gerte sa yaay. waaw fii fii fii. ah damaa xam-xam sa baay bu ma xasee ma. si koo xam xam sa baay. waaw kon baax na. loo xam am na ko xam sa baay lu gën a. firndeel waaw da ngaa réew da ngaa réew ay jigéen fi nga na. toujours comme ça. saa yéen a yéen yéen leen dara da ngeen yéen yéen leen dara. waaye yéen da ngeen di fenn yéen a leen dara. ndax booba tey yéen a wax ay folos folos lépp loolu la kenn folos. waaye seen bàyyi seen yi ngeen nekkee ni ngeen nekkee da ngeen di fenn. waaw doo leen doo leen yéen yéen yéen leen yéen leen maa ngi fokk. waaw waaw waaw jërëjëf. dof bi boo bëgg a dee onze. muy yi band yi kàccapaa yi. waaw. yow lu ma ñuy wax rek yow la munas li ñii luñ ma wax rek yow la du tey rek ma wax dara munas munas menace nekkal nit munas woyu yi bandi yi kacapaa yi nga top yow munas lan la yene mo foogoon changé nañ yow mun a bàyyi damaa foogoon ñi da ngeen di gisee foogoon ñi xanaa ñi ñu nga leen gisee boppa te yaa leen gisee nii ñi ka ñi changé yow mi yaa war a changé Yeah. Uh huh. Yeah. Nyango ni khe, nyango ni saga, nene dade, dinyo waga. ande kikens, koko idaya, nyango ni fe, pa. Papa mlacha na nyango, yo khana kiso nyango, yo bo khamon nyango, do lake. Yeah. Uh huh. Yeah. On the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 et wwwcfas du 6 sénégalcom ou bien wwwe du 6 cfascom Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh -huh. yeah. ñanko ngi xeex ñanko ngi saaga na di ñoo di waaga ànd nyanko gi fe pa ah, ah. papam la jana nyanko yow xana giso nyanko ça ah, wa wa dama la soxlo wala sa hein eh? lo may doy ñangu mooy keroog affaire boobu ñu doon wax kër ga affaire financement waaw ama yow ndaay na ngeen faa ñëw wax lu leen saf ruube ba sama yaay ne après ñu gisante waat mu xaw maa convaincre daal. waaw. ba ma yëkkati cent mille si xaalis bi jox. waaw. boobu tey jox ko cent jox ko euh, cent waaw. waaw. na depuis loolu je ne sais même pas où la trouver te boobu tey maa ngi koy seet sama yaay mu ngi soupçonné que ni xaalis bi manqué na te instant yi man xaw ma fu ma jëm loolu moo tax ma ne naa ñëw comme ça nga wan ma fi mu nekk nga dimbali ma ngir yàlla sinon du baax si man. man gis nga man daa man daa gis nga ko. ah daa xaw ma daa wël naa ko gisuma ko. maa sutura wala barki yàlla man boo ma wanee ndayam fu mu nekk man après dinaa la neexal mais de grâce rek ngir yàlla won ma fan la nekk te su ma ko gisul sama yaay dina xam ne maa jël xaalis bi nga mën a moom doon ñëw dëkk ci kay dafa ma ko joxe ta tey mënu ma ko teg bët. fenk nga fenk. foo xalaat fan daan naa ko fekk dem naa. ah kon de yow ma laa andi dem xam nga fa. yow fekkee woon nga gisoo kale woon suma wala duma ko gis. mais ñangu mën ngeen am ay ruq yoo xam ne peut-être mosuma fa dem. lu ko yooyu fat nañ ko amatuñ ko lu ko yooyu fat nañ ko. waa léegi man je fais quoi te sama yaay mu commencé am ay soupçon. lan lan lay def. ma nga dem seen kër waaw. waaw. kañ ngeen mais daf may rey. léeg-léeg ah on day <laughs> yow yow yow man daa ñëw fa yow laaj la. pour nga ñoo jox ma ak moom sax yow joxoo ma joxoo nga nga nga jox laa ñëw fii di di wax. waaw jour boobu yéen yow yow yéen a fa nekk di def fi dof ba yàq seen bopp. waaw waaw waaw saa dama nekk. waaw léegi. mooy gis nga man ndaayaan gis nga ko de demal. waaw duñ dem léegi sax nga jéem a dimbali ma sama yaay. moom moo ko moo ko sa yaay. waaw ba si waaw peut-être boo ko am na noo ko expliqué dina am tuuti pour mu bañ ma. gronde sinon daf may rey. nañ daw. yaa ngi bu fa nekk di wax. waaye nañ daw nag yow kay nañ daw nag. waaye yow waaye yow xaw ma waaye. te yaa ko wax ka la yow naa ko expliqué ko kay naa ko expliqué waaye dama nekk nañ daw nag. ña ko ngi xeex ña ko ngi saaga nee na daa dee di ñoo di waaga. Kanda kikens Koko indaya Nyanko gifepa Papa mlacha na nyanko Yo khana kiso nyanko Yo bo khamol nyanko Do lache kambo nyanko Baya mlacha na nyanko Yo khana kiso nyanko Yo bo khamol nyanko Do lache kambo nyanko Nyanko Dafa leo mingi kondo chok Niko magla ike kanto Nyanko Babu jango Boy rangu sot Nyine nanjiko <laughs> Kogire Kogire na Ametilek yaa ngi ci koor gi baax. na man kii gars man gars man du ma la woon. ah ma gars yi ñoo la dara. gars ma ko wax ñoo ñoo toppewuñ toppewuñ la dara. ah yow comme wélo yàlla nee na toppe wala dara mën na kaa kay ndox sax. nga war a bàyyi ma dénk koor gi la rek waaye bu ma doon kenn de. Ah, toppewuñ la dara dina kii xanaa. nangu. waaw. daa am kii ak daa am kii problème. nangu. waaw du problème de. waaw nga la ma expliqué ko. waaw sa waay su fekkee da nga indiwoo fii da nga may bàyyi rek ma wax. waaw kon boo ko ni ko waxee rek. waaw kii naa sama xarit. mooy borom tey sama damay génn. waaw kii. léegi nag bi ñu ñëwee ma bi ñu ñëwee affaire fu leb xaalis nga ne lebaloon affaire damaa woote ma ne ko garaawal may nga dëgg garaawal. après kii dafa dafa lewaloon kii Raya xaalis sax. Munaas Munaas. yow da sama xaalis bi dama ko daal. waaw xaar xaar xaar def naa def man damaa ñëw nga yëg ba fi fi mu toll daf daf ne bu ma la ko wax bëgguma yëg waaye li ma wax historique xam ko loolu léegi dafay naa yaa gis ko. te day bañ nga laaj ko xaalis fekk mu ngi ci naar. léegi da nga koy may moom mu dem wëli laayal après mu jox xaalis. yow baax na jërëjëf yow sama xaalis bi nga man kay man barke bi maa ngi xool sama xaalis da nga dafa manqué waaye damaa foog dama ko déggee càmm yow da sa jël sama xaalis bi jox ko ndaaya yow ay dof ñëw fii mën leen mën leen. yow may ma tuuti yow yow nga jël sama xaalis rek jox ko ndaayal yow yow yow am nga jom yow da nga ñàkk yow ana ndaaya kenn mën nañu wul ba sonn kii kii su ko wóoroon su ko gisoon kay wax ji ñëw ci yow. waaw a waaw saa mi waaw. saa mi yow wér bi dina ma fay sama xaalis ci nii. mbaa mu fay ma sama xaalis bu fekkee da ngeen a dof di reewantu di def yëfi kacapan. maa leen eh, xam dina sama kër gi. gennal gennal gennal. yow moom amoo jom waaye su ma demee ba ñëw xam ne. bu fa dem. yow ñaa ngi koy eh. amul jàngkat yow yow yow yow doo yow doo doo yow yow li nga wax loolu laa xam ma ma yow boo mënoon na fële. yow mën na la wax ji defal ko ba sama yaay du mel yaa ngi nii léegi mu demaat kër jàmm dafa indi chaque deux jours sama yaay. su ma demee kër jàmm nañ ko nañ ko ñu si sa yow. yow mi yaa jaruñu waaye gën suñu kër naan ko aw fii bu ñëwaat suñu kër dégg Yeah. Uh-huh. Yeah. ña ngi ko ngi xeex ña ngi ko ngi saaga. nene dade dinyo diwaga ale kikens koko indaya nyanko gifepa papa mlacha na nyanko yo khana kiso nyanko yo bo khamon nyanko do lake yeah uh-huh yeah nyanko gifepa nyanko gisaga nene dade dinyo diwaga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 et www.cefas-6sénégal.com ou bien www.e-cefas.com. Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh-huh. Yeah. gi métti na maa xam ne dafay wutal géer yu baax ah moo moo boo amul géer yu baax sa sa dara du baax doo korte doo tubis doo sol yére yu baax sa xarit ba kooku gana ay da sam yow Siri Ibaay say borom milan yaa ida say borom milan ni mu def ak man daa metti sax ci ay kooku daf maa bëgg bëgg meew salaamaaleykum maa la wax lii de ay da saw yàlla jàmmam yàgg kooku day ku waay yow yàlla na ko defal waay waaleykum salaam na ngeen def daal ana Ndaayaan. ah mbaa mbaa jàmm. Ndaayaan laay laajte ana mu laa la wax. Ndaayaan day nekku fi. sama xaalis la yor moom laa jël si. yow man damay a koor gi métti ci man wala man maa la dama ne la sama xaalis moom la Ndaayaan yor moom laa jël si. Ndaayaan yow kañ nga ko jox sa xaalis yu tamit. Ndaayaan joxuma ko sama xaalis xam nga ne man moos joxuma nit ñi bay jox dof yi. waaw munaas moomu la ñu corrompre ba wax a wax ba mu jox leen cent mille francs njànku ñëw sama kër. waaw ne ma ndaayaan lañ jox saam te gisul ndaayaan. ndaayaan nag laay laaj mu jox ma sama xaalis te nii mbaa mu jox ma ko ci nee. alors yow est-ce que ça va bien yow léegi yow yaa ngi jox ko sa xaalis nee nga dof nga ko jox joxoo ma ko man mi bàyyam léegi la pourquoi fekk si ma fii maanaam sama morom noonu nga may man foofu ma boo ma xoolee xam ne tafu ma. sama xaalis bi laay laaj. ay waay daal di kan mooy foo maa lay wala yow yow ma ne xoolal xoolal. est-ce que xam nga ne bu ma gisul ndaayaan yaa may fay. Ataas

ñun ay noble lañu anam anam dañoo ñëw sa kër nga toroxal ñu ba ngeen na tot jël sa alal mu riir ci ay doof ak ñuy naan sangara na bëgg ñëw ci ñun bëgg ñu ko laaj dama leen toroxal ba ngeen na tot ba mel ni mbootu duus waaw ndax da ngeen a ñàkk fay la ci yéen ñi ànd yéen a mën man mi yor sama xaalis ma leen ko jox man xam nga ne mos bu dee man ak man dong ki joxul nit noonu la joxee dong bu ñu demandé bu bu laaj xaalis ko lan la lan la bu fekk ay magum jëm koor gi jàpp leen suñu bopp yi nekk si fan la ñuy ndogu ngoon nga ni wax ay xaalis bi nga jox ay ndayan nga ni fi wax rax si doole nga ni ci nga ni maasaal si noonu gi. waaw daal di bu ni di woo ci jamm nang koy wis si surtout. ñew nañ su kër nga woon ni wax nañ ni jox situation joxonu ñu ñew tok suñu kër suñu ngor ba nag suñu ngor suñu dinité ñu tok léegi nak bu fekkee ndayan mo jël sa xaalis mu nga doxlo la sa taat dem wuri ndayan ba gis ko. ñëw. ba xaajuma pare heure bi ñëw ma ba pare xam nga tax may ma la pare dama laa laaj ne ko kàkk ba kon nag wax ji xëccal ma si yow eh yéen ñëpp laa wax ni yax ni kon yaa ma dugal si wax ji nag yéen ay trois trois mousquetaires ngeen di waaw yéen yéen ñun boo waxee mousquetaire dañ lay ku ma ñuus ma ñuus la ba nga wadd fi tey ah, maa la wax li man daal dama yaakaar ne yow dañ laa jox dañ laa jox ah, góor ñu yolam ñoo ñu xam ni sama yoon dañuy fipp duñ dóor sama yoon da caanewut man mën naa mës naa tekki te laalul kenn maa ngi nii taxaw dama leen mét daal bi rek mét daal dégg nga wuy ma. Ah! femme femme femme la. Mbadiane eh, da ngay def geste rek. Mm-hmm. Mbadiane ah daal génnal kër gi. génn ma. léegi yow toogal ci kër gi. toogu ma. man taxaw man taxaw bu nekkoon li ma risqué bu nekkoon li ma risqué pen. ay wayu ngeen ay bandi ngeen. ñoo tay ay kacopaa ngeen. ñoo tay tekkiwu leen dara ci réew. ñoo tay tol tolaan taxawaal. maa tay. waaye du kuréel tay. bàyyi gi rek tay. waa léegi ñoo àndandoo ñoo tay. tay waaye yéen a tay ba tayaatoo nee na tey ba muy fekk léegi nag man mii tayut hmm. maay dem ba police indi oto bi ne lan tokk ci oto bi boo naayaan ñëwul fay ma sama xaalis. dangaa rus li ngay tiit bëgg alal. yéen a ma gën a tiit bëgg alal ñu ñàkk jot. wóor ku la neex góor gi ne ci kër gi. xam man li ko fi jëlee. wóor ku la neex xam man lépp. lu ko fi jëlee. <laughs> Ah, ah, ah, daa deful ni yéen marabutaas daa deful ni yéen marabutaas marabutaas ak donn sama xaalis dama ko liggéey ñàkk ko eh, nii dama police dama eh yak sa corps bi yak barana wal ministre intérieur mu ñëw kay ñun boo demee boo ñëwee nit ñi fekk a xoolal suñu ñun. Assane Gueye ngi lay xaar fii. nga xam ne ñun pour caaxal ñu dara du ñëw. yaakaar résidus yi ko ku ma yëg ci gox bi ah. yéen la. kan yéen ñaar ñii. man ku ma ku ma ku a tax mu da ngeen a a arñi arñi ngeen arñi ak garde silence ay nit ci àjjana la normalement. Ah, ah. wax. dama ne booy bi ba mu ñëwee taxaw fii suñu suñu diggante war na ko war war a koo répondre. dégg nga de ñaata sama doom la tudd yaa ngi woon ci ya, taal bi. ñaar yoon taal la waaw dégg nga la pat Pataas Mbaye mi mu réer. Mm-hmm. nu ma réeré. kii àgg si ma dañoo dañoo ci këram mu lànk ñu lebal. Mm-hmm. alalam réer ci ay dof. Mm-hmm. mu ñëw ci ñun di ko laaj. waaw dignité silence. sama doom la àgg si na bu fàttali eh, eh, sama doom la eh, parfois cela s'en parle. tout waaw. yenn saa bu nit di wax ak yow mën nga ne mukk déglu ko après loolu mën na koo si humiliation la surtout. baat baa ngi humiliation. kay silence kon waroon naa koo mu dee. baax bu mu ñëwoon ma ma ma na romb na ah. yàgg Pataas Mbaye. Ah. dama yaakaar ne gi dañ la ko pikir xaw ma nañ la ko awal. Eh. mais bi laa yàgg na yàgg yàgg woon fu baax waaye ci ay da waaw ah, waaw eh, ay da saw moom. waaw waaw dinaa leen boole ak moom. kay kay. mais nag. mais Korité gi ñëw na. ganaar amagul. kay moom moom. Hmm. nee na euh, du kuréel la bëgg ngeen di xaar man man mën na am. mu yóbbu leen fa ñàkk ko léegi jël sa géer yow ya, nanu wéri suñu géer ko man am naa boobu ak Ismaël Tiere la ah, waaw jële ku la boobu italien kan ma nga oh, laay lay lépp lu jëm si wàllum social moo si gaaw présenté ma ko doo ko yow kooku yow defee ant bu mel yow exemple la dama doon exemple xool ba xam xam naa ne yéen a man wax a dugg kii hmm. li ma ci ay nit wax a dugg wax a dugg wax a wax li ma ci am ci ay kan nit ah baaru sa waaye ay ndiir ak waaw ay diw tii rek ndoxum li nga mag yooyu man ay baykat la loolu la moo tax ma woo kongu nii nii da xamul fu ma jógee di ngeen dimbali ma seen géer yooyu rek ma noppal benn yoon. ah ah maa la wax li ma naqari neexum. dinaa la boole Papis Demba Cissé. min en ce année na maa waaj tëdd. doxal sama waaw ni ngeen waxee ni daa mel na ko xam te leer na ma ne miinoo ko. jox ma numéro. jox nañ la numéro. waaw boo xoolee leen ñaar. mais man maa xam nga nit boo koy wax. dañ koy wax am importance. muy gis nga nit boo boo fekkee ni euh, autorité la waroo di message ante moom tout le temps. c'est vrai. yenn saa da ngay mel ni ku ko fàtte. dëgg la fekk sa xel nga si moom da ngay jékki-jékki roof ko message am importance bu la tontoo nga off ko mel ni ku ko ku ko ku ko farataalu message. fekk ah, message boobu ngay wax c'est ça c'est ça da ngay stratégie. xanaa xam nga man ah, mën naa leen a boole Sadio Mané. kan bu fekkee maa ngi wax dëgg. kan kan kan ci wàllu football la waaw waaw waaw maa dama leen jox link bi. sur YouTube. da nga xamante ne dama yaakaar danga ne sa giir la. waaw waaw damaa foofu laa bëgg a waxee. waaye mais naa jox link bi rek. Sadio Mané du may de. yii yee. Eh. Hmm? kon yow xamoo kii maye. ngay joxe de. Sadio. jox na ay quatre frères am xaw ma xaritam lañu. Hmm? ay milliards yu bari. Ah, loolu ko ay xaritam nga wax. ay xaritam waaw. waaw waaw waaw loolu la baax. Ah, loolu la baax da ngaa xam lan lay daj ci moom. marché Sénégal bu amé da nga xam ne suñu course gi lan lañ fi wër di ñaan saaje fu mu duggal waaw yow bu topé course rek daan dé dé dé saaje yow saaje man lu ko lu ko yob Liverpool mën ma see génn. bu toppee course gi daanu Yeah. Uh-huh. Ah, ah. Yeah. ñango ngi ko ngi xeex ña ngi ko ngi saaga nee di ñoo di waga ànd ki i koko indaya nyango ngifepa baba mlacha na nyanko yow xana nyanko yow boo nyanko do yeah uh -huh. yeah nyanko ngi xeex nyanko ngi saaga nene daa dee di ñoo di waaga ànd ak i koko indaya nyango ngifepa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 internet et www.cefas-du6sénégal.com ou bien www.e-du6cefas.com. Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh -huh. yeah. waaw man yaay sama xarit ba bépp jafe-jafe bu ma am yow laa siy waxtaan nga xool noo koy lijjantee. waaw léegi nag. dama bëgg nga wax ma sa xalaat ban jàngkat nga xalaat ak boo fa waxtaankat ñu ni leen fii ñu bu ko si lay jàngkat da fay yu saal ne lépp lu si jëm nenam bul waxaale boo amee jàngkat bu mën ak waxtaankat bu mën lépp lu la si ñoon man maay fay woo woo Famaale kii Famaale xam nga Famaale déedéet Famaale mooy lu mu lu mu woy moo woyoon eel bi eelu Seex si yàlla ana eeram moom mu amu eel day jëjë eelu gars yi borom eer bi kan la Seex ah waaw

waaw waaw loolu laay bañ daal ay polémique moom waxtaanoo maa ngi koy waay noon noonu sa noon bi def nangam sa noon mi def nangam. yooyu daal jamono lay waxtaan jamono déedéet man kay oustaz euh, euh, Modou Fall damaa yaakaar ni daa am usine bi defar ay noon moo ko sponsor. jëla Fapal. kan Fapal déedéet daa mën a sañse daf may daaneel. daa mën a sañse gis naa ko booy boobu day sañse tëj ji bis dina leen doroxat bugguma kenn daaneel ma sañse dama bëgg a ndaanaanu. sose. kan tey sose ñëpp lay dugal safara. moom kay bu waxtaanam kenn dugg àjjana te ñun moom baax na baax na waxal waxal. jële Iran. Iran man. faa Iran. Iran naa ko indi foofu muy wàllu nit ñi. waaw ah. loolu daa sollicite. waaw loolu waaw déedéet du ma ko fa laa ilaaha illallaah. Iran kay ba ko ba ko muy muy toog moom kase di waar ñu koy seetaan. waaw kay moo defoon affaire. Kosida. Kosida man. Kosida fa la Fuuta. Kosida. waaw Kosida. waaw. Kosida Kosida de. nga xam ñun xamuñu ko. yow Kosita mi ngi ñëw fii di la seet te nga xam nee na moom du sol lu nuru mukk. waaw waaw saa yi bu ma oyof de. Ah. wuuy. léegi léegi léegi. Eh. ñëw Kosita. Ah. saway Kosita Kosita fu mu dugalee ci waxtaan xam-xam. ña da ngay tuuti sa ngay bàyyi lépp. ña ko Kosita mu nga xamante ne moom moo jaay ko. waaw loolu la jëlee xam-xam. saa dañuy laaxatoo si gars yi sa gars yi dañuy laaxatoo fa la fa tey ñoo fa xam-xam dañuy laaxatoo seen kooku ay ah Kosita. duma wax dama kay jël de way dina def casting kon hmm wa ah wa dina jek jek jël dama wo ko sta sita te booy ñëw utal ma ñaari témoin wa wa le ma duk re ak ak ak ak ak patas mbaay aw wa gor ko sita waxtanam de dina bari ay neene baba ene nga na ko mabbi ay way pël fóote yi dugg nañ ci waxtaan ma ci teg ah baax na ma xaar mu ñëw rek bu dee waxtaan kat tamit nekkul waxtaan kat bu siluissé de kii yow ñëw si kër jaaw di bërti bërti mel ni ab fas salaam Eh, ñëwoon ñu ñëwoon ñu. Ah, ñëwoon ñu gerte. kon ajaalaama rek lay ah, ko mujj ajaalaama ñoom xaaj. Ah. waaw. Eh, jàng. waaw lu ma waxoon. waaw mi kër gi. Hmm. bisimilah. Hmm. Hmm. mel ne noonu yow yaa soxla jàngkat bi. déedéet ah ko. man waxtaan kat laa xam wuti ko. Ah, waaw waaw waaw li ma wax li ma wax rek ci kii wala loolu rek. Ah, waaw léegi donc ñu dem noonu droit bi. Hmm. waaw ah. Hmm. bisimilah. Hmm. man noonu. waxuma. yàlla moo wax. waaw yàlla moo wax. waaw alxuraan. si yàlla mu jóge. waaw loolu ñëpp xam nañu. yàlla moo wax ci alxuraan. hadisi. mu jóge si yonent sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ana ñoo xam ne xamuñu ko de. waaw wa sallam am nga si kër la ñu nekkee. Hmm. kër naw amu na papa a yaaya doomu. <laughs> bu nekkee kër marié mais bu nekkee kër goo xamante ne borom kër gi célibataire la amul yaba amul dara mun na bañ am loolu. borom kër mooy samp kër. Hmm. léegi noonu. Ah, waaw ah, ah, dama dama dama dama dama amul seen baax. asalaamaaleykum. waaleykum salaam abaar ko na def ah, toogal toogal jëkkër toogal nii ba ngeen jàmm man mën naa rek yes ah, ali da am yow dégg ma déggoo li may wax ah, annonce bi demel ne ci ca ca ca ca ca ca ca tamati ñaan ngeen ngeen ah yanku eh, eh, yanku da nga ma woo waroon pour waxtaane man maa waroon waxtaane ka <coughs> waaw ah itu mën naa ko ne mi dama kaa woo ne ku sal daf maa jox nee ma daa bëgg ma daa di woote laylatul xadri si koor gi. mën naa ne. mu proposé ma caat xaw ma kan Pape Malick ma ne kuy Pape Malick mu ne ma mooy mooy woy airub seex ma ne ana borom air bi mu ne ma mi ngi man ko jël naa borom air mu proposé ma si waxtaankat ay Iran Ndaw ay Tayib Soose ay ay kooku di wax sama noonu. ñëpp ñu bañ ñu bañ. Ousseyn Mor Fall la. kan ci Mor Fall waaw waaw waaw. ah déedéet kooku kooku kooku kooku kii kooku Oustaz Bëgg من ما كنتش تبين خير تامنا تدعملوا لا قلت بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم دم نعم ما نكو دوما ديف دارا سي غيناو دوكو اك باتاس باي مي دينا لي وني ليب واو ما غي نان كين مو كوماسي وقتانم ما دينا لي وغن تيو بو أنا بي ابوردي أنا جيل كو وقتاني كي مي امونو لو سيزي افيربو باي ما ديف كومبليمان واو واو نون كو دي ليلة الهدري amna lu jitu bobu si nga nekkee borom ker nga dindi dépassi nga wara jox sa jabar dépassi yi sa jabar dépassi yoonu fase bobu boobu. islaamu ah. hmm. hmm même bo amu ko de a jabar moo ma wax de. Hmm. waaw dégg nga waaw. nga nekkee borom ker nga nekke asa jabar nga saga ko dem nga laxaraas. laxaraas laxaraas fa ne. laxaraas. mo nekke non ci montagne bi non nga xool fii doo waati nekk góor si nekk sawar dama ndànk ba pare ma ñëw tul pare ma nag nga dooru nang sa jaba dooru nang mm. dóor yàlla dugga na yow sawar oh eh, leena nañ ku dóor sa ku dóor sa jabal xay dee dem safal loolu leer na képp ku dóor loolu dama bi yàlla mun na jàpp nit mu dugga ko safara mu nekk si adduna bi di dund mu dugg safara yow eh eh, eh eh sa wax ji mën na ci génne xal boobu mm-hmm. ba léegi it luy tàkk rek ngay wax. ki daa yaakaar yàlla débiteur la wala yow yàlla da nga yaakaar yàlla moom débiteur la yor. oh oh yàlla nekkul débiteur la yor kon noonu bi ñuy judd. Mm-hmm. fekk na noonu malaaka yi dem nañ takka matt matt ñun bi ñuy ñëw ci àdduna. Mm-hmm. malaaka yi dem na wuti matt. léegi ba ñu ngi booyal. sa waarate ku mel ba léegi ñu ngi booyal. am nga soxna wala amoo soxna. Oh, oh, oh. maa ngi nekk si ko laboratoire bi maa ngi nekk si laboratoire bi moo ma dalal ndax suñu maa ngi waaj noonu tàkk jabar mu ngi waaj yow non amoon nga jabar mook yow a yam Fatou Kouré bu lus neex maa a yam bu ah, ko sax moo nekke noofu amoo droit laaj ko yow bokkunu yow imaam nga toogee yow am nga doom wala amoo doom na ah, ah léegi a amuma jabar tawoon ko ma ku si da mën naa bañ a am jabar am doom ku si da wala gis naa ko tem dafa ëmbal tem bi moo nekk buntu frontière bi waaw wuy ma ku si ma continue waaw on si va awa léegi nag hum. awa man la ah nekku si sa awa bi de hum. léegi nag hum. yàlla nag si mu xoolu doomu aadama nag mu mere ko nag mu jàpp ko mu eh, soobu eh, ne ko eh, muso waxtaan puub yow ah yow nu ngay defee o dafa am rythme

ñu xanaa ñun waruñoo mën a dugg àjjana ñun. àjjana am na. waaw kon doon doomu aadama keroog mu juddu. mu doomu aadama wax cupp si suufu. malaaka yi cupp si ah, suufu. Mm. malaaka bi na mu dem na mu wuti amattu. mat ah. dégg nga man léegi yaa ngi boyal de. Eh. mu cupp. léeg eh, doomu aadama la wax mu cupp bàyyi di orienté waxu jàmbur. baa di déggee nu la neexee nga xam ne noo mooy def waaw loolu la matt bi laa bëgg a Kouchita waaw fay ba yow noppil posal. man la bi nga pataas baay mi ak dukku mi. modeste moo leen sonal. ah waaw. ñii buñ fekkee woon jamonoy mag ñi fu mag ñi toog ñii seen wet la ñuy toog lu mag ñi wax ñu firi ko. waaw góor comme ngay sama doom bugguma la woon neenal. moo tax mu accepté sa proposition kii ay olofam leerul kii cëpp pucc lay wax. kay te conférence ba. ñu nekk fañ xam noppin. li ma leer ku nga noppi. parce que maîtriser wu la ngay wax. du ko damaa bëgg nga ñëw ñun. Hmm. ci waxtaan. bu dey bu diib bu dëju bu am rythme bu am fasaaxa. ci organigramme bi nga tek teg mhm. nit ding ko jox loxo du jël loxo ba mhm. da nga ko doon may sens mhm. mu indil ñu safara xanaa xamoo population dina yegg fo xamni ni ña war a <laughs> di joxe information li dekk ba laaj ci niveau bobu lañu wara and ak ñom waaw nañ comprendre mu am solo jox ma hein ah? ma jox li nga soxla kim càpp cumba kim càpp cumba ki ki cumba du dara ci àdduna cum càkk cum càkk amul solo waaye léegi léegi doo xam bëggante te xam ne loolu la ko fi am càkk cum gin càkk cum gin bu ko woon càkk cum réew di foo xam ni càkk ñim ma rim bax càkk ñim ma bax càkk hmm. ñim ma rumbax cakin ñu ma ki adduna bu kenn xeeb kenn rumbax cakin ñu ma sa taa kon lu dum dum sa eh, eh, eh. bul feer sa se yefum nañ yooyu waaye ko waaye waaye sàcc ngañ donc moom mbasa mbasa mbasa mbasa musuma leen ñaan ci àdduna waaw toog leen ngeen suivre cakin mm-hmm. ñu ma rumbax cakin ñu ma rumbax cakin ñu ma bu kenn xeeb kenn bin cakin ñu ma kële lu waay am ci àdduna mu ndaw mu bari. càkk ñu nga dimbali sa nawle. càkk dof baax na. dukkure. baax na. dukkure baax. Fula Fouta saa baax na yére bu yàgg. Fula Fouta saa baax na dukkure may ma tuuti na. dukkure am nga nag yàlla na yow yaa ngi ko doon naa la trop. Eh. la moo tax may ma tukkure mu nu dumbax bi. su ma waxee woon su nga defoon tukkure mu waa bi naa def comme dukkure nu may dul waaye yow yow yow nga yow ma yaakaar la jëlee la fee ba nga ñëw amoo la naa ay eh, eh, eh, lu tax ma def ma tukkure mu jërëjëf nga yow nga jàpp ñoom dugal ak safara dafa tukkure mu ndox mu def tunguñ dafa dafa boobu ma ah? ma dafa tukkure ngu na tukkure waaw defal ko ko waaw defal càkkungu naa lu ko de ah su mu demoon su mu ma yaakaar la càkkungu ma yaakaar saway saway doolu ma ren kii laay kii laay dool càkkungu ñu may jox ko xoolal waaye xoolal waaye nag fi mu nekk dafa nooy de càkk ñu ma càkk ñu ma ñun ci lay dul xajal la waaye waaye waaye yow nag yow nag ñàkk na kenn xamul ñàkk na kenn xamul sa affaire ah daa nag maa la ko waaw bul daw bul dawee maa <laughs> la ko la bạn quá đâu nó mày nó ngon hơn à bạn ấy trời thôi càng ờ. đâu rồi vô rồi vô rồi vô rồi no, no, no, yeah. Uh-huh. Yeah. Nyanko ni khair, nyanko ni saga, nene dade, dinyo di waga. anda kigenz koko indaya nyanko gifepa papa mlacha na nyanko yeah uh-huh. yeah nyanko ngihe nyanko ngisaga nene dade dinyo diwaga anda kigenz koko indaya nyanko gifepa ñànk yow boo xamul ñànk doo la jekk yeah uh-huh yeah ñànk ngi xeex ñànk ngi saaga nee na daa dee di ñoo di waaga ànd ak i gens kokoy daaya ñànk ngi feeb papam laaj na ñànk yow xanaa gisoo ñànk yow boo xamul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 et wwwcfas du 6 sénégalcom ou bien wwwe du 6 Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh-huh. E e. yeah. nyanko gi fep boppam la ca naa ñanko yow xanaa gisoo ñanko yow boo xamoon ñanko doo la jee kan mooy ñanko boppam la bilang. Naka koor gi? Ah, koor gi de. Nii rek. Waaye daa mel ni tey de. Naaj ci ani kii ñànk mi ngi fi. mi fi ñànk ko. doo nag mi ngi fi. Hmm? doo mi ngi fi. doo tey gaa génn daa dem xaw ma seen yooyu ñu def seen tuuru famille yooyu. d'accord léegi benn affaire rek laa bëggoon euh, xam nga tey man wooruma. Hmm. ndax jigéen moom mënul woor weeru koor gi ba mu jeex. Hmm. léegi nag euh, sama xarit tamit aussi man ak ñoom ñoo bokk dal man su ma kiiwee rek ñoom tamit dañuy kii. léegi nag dama dama bëggoon a organiser fii nii. ok léegi. mais jigéen mënta weer weeru koor ba mu jeex li may wax yaa gën a xam damaa indisposé. Mm, ah, non waaw indisposé euh, bëggoon a togg fii nii ñànkatam diwtiir. waa ma bëggoon a invité sama copine yi te benn affaire sax na am na. Mm. xam nga la laa bëgg. Mm. comme ñànkoo fi nekk doo nekk fi. coon bu mu tëgg waali bu mu way damaa bëgg nga woo ñànku yónni ko fu la neex. waalee ngaam bi sax. ñibbisi na. Mm. waa ñëw na. Mm. léegi nga yónni ko fu la neex foo ko yónni baax na mais en tout cas daal ma sonn bu ko defee ma organiser te loo ci xamul maa am sama xarit boo xam ne. Mm. la mu jongo ci àddina musul am. te ñoom ñett nag laay invité ñu ñëw tay ci kër gi xam nga lu ma bëgg. nga invité ma euh, nu mu tuddati ak pataas mbaay mhm. ñu ñëw mhm. kër gi nag ñu neexal ko ba mu neex mhm. ndax tubaarikàlla yoo xam nga ñun suñu yëf du ndaw ñu organiser fi añ bu amul fenn rek waaw ah, xam nga daa am ne yàlla moo koy dogal si ay mbir ay nit muy feebar day am wér day am waaw te yàlla daal de ko te ñun ñu ñëpp dañoo feebar même man mi tey damaa indisposé waaw daf may dal feebar la boo xamante ne faj nañ ko fu ne wir suñu askan daanaka ñun maa fay indisposé te démb maa ngi dégg tamit dukkure ak pataas ñu ngi naan ñu ngi seen weer ñoom it waaw xam naa kay damay fexe ñaan génn kër gi rek comme ñun ñëpp dañoo indi indi sport rek ñu def sunu sunu ñànk ñànkatag ak diwtiir. kon mën naa dem duggi ko. demal duggi. mbaa ñànku dina dem na mel ni ñànk ñànkatag ba pare na mel ni yow ñu ngi toog di di di di di. di ay hmm. sama xarit yooyu ñëw fi mu toroxal leen man xam naa ñànku dema ni dama ne mag du yàlla waaye yàgg naa ak mom ñank dina genn kër gi tay neena tay dina def suñu suñu intimité ta ñank dara du yëngu waaw comme waali ñew na da no télé ki rassemblement yi du way du way al du way wa baax na léegi kon xaaral ma jema dem mm-hmm. préparer ko mm-hmm. ko defé ñu lay ko dalal sa xel dalal sa xel jël sa temps ci togg bi na poobar bi saf na am kaani tëmbal na am kaani dëbb waaw na diwtiir bi doon bu Casamance nag waaw na bu mu doon bu mu rax ñànku ñànku ñànku bàyyi néegu jàmbur bi bàyyi néegu jàmbur bi kaay dama kaa fàtte woon sama xel génn si ah. sëñ Abdoulaye Faye bu Thiès Abdoulaye Faye waaw bu Thiès waaw daf maa wóolu woon démb mun a ba boo boo fi mënut a ñëw na nga yónni ñaŋ te fu mu toll nii sama tànk. Thiès dama waa Thiès waa Thiès. waaw te te noonu la noonu la doom yi bëgg. waaw kay maa bëgg nga sol sa daal yi léegi nga dem Thiès nga nekk sama papa ma yóbbante bu ma la doon wax nga jox ko ko faaf. daal yooyu. Ah, ñoom kenn sa baay. sama daal indaale voilà xaw nag ngay def. ci mais mais mais ma dóor benn kii. ña lay door ña ngi lay door sa famille moom mm-hmm. ña lay door. Mm-hmm. maa ngi nii waaja yooru. wax leen wax leen wax leen sa sa baay la yónni ba muy moom. ña ngi ko lay door sa famille moom waaja yooru Cees. sa papa la yónni ba muy moom. <laughs> affaire nga affaire nga yónnee ma ko de. waaw ngi nii. paasal. waaw te ñaata la. Eh, lii junni la maanaam boo demee ñetti téeméer ngay paas dina la wecc juróom benn téeméer wala juróom ñaar téeméer nga téye boo ñëw moom sëñ Ablaye Diop paas euh, kii dina la jox paas nu mu tudd sëñ Ablaye Faye ah. dina la jox ah, paas nee ko yéen nag bu mu ko wàññi lu ma ko dina ma ma ko jox dégg nga doucement rek ñaan waaw te daal lii de bu ko joolaay gisee nga seen xel mooy nekk ci batal Joola. non. non ku kaal de wit ah góor da ngay njaxlaw fa ah. dem naa ñëw. déedéet ñëw demagoo boo demee nag mu ne la xaar añ bul ko gàmtu toogal nga añ. bu ne la naan attaaya nga toog naan attaaya bu la yónnee feet nga dem ñëw doo ko indi sama yóbbante bi. waa Thiès. ah am nañ problème. ah ku a fekk wóorul. waaw ah. eh, yow bàyyi ma yële bàyyi man du sa échantillon nag dégg nga waaw rek waa góor. bàyyi suñu ah. allah dina ko dégg. Ah. dina ko dégg. léegi kër dugg rek Fatas Mbaye leen ñëw. taa waaye ñu ne taw naaj tàng tubaay kàlla def. wër gi na. mu ngi mu dara. barke sëñ Bàmba li mu def gëmu ci ci weeru koor lañ nekk. pourtant pare naa bu yàgg na. xaar naa leen ba sama kii bi sedd ma tàngal ko. waa nu ngeen jongomaa ni. mooy. te nag man de jaay ma sóoru weer koor la sant waaw ci weer koor lañ nekk ba si dabaa dama lay baax baax na wóoroo leen dama leen seen kër jàmbur ngeen nekk bàyyi ah, ngeen ko nag seen yi ngeen war a bàyyi boo leen dem rek xuloo lii moo tax sa téléphone moom sa waru ko cee sinap. man du ma si sinap. déedéet man xalaatuma ko. du envoyé photo. nga am connexion yow. daa perte de. wuy ma jàpp bu perte ngeen nii. kër jàmbur ngeen nekk de bu ko fàtte. kër wuy ma asib bañ ndogu ba pare. yow dinaa woo dinaa woo su ma doggul fii ci kanam mais damaa woo. yow commencé naa yaa ko ëpp jaw ma yaasin. Eh, <laughs> kii moom. moom da ngaa bëri histoire yow ku la xoo xam ne wóoroo. ah yéen a yéen a wóor mën a yéen a yem. man maa wóor a gum. yow wóor a gum. waaw waaw ah, lan dem ci kanam ah, ñu joxe. Ah, ngeen defar. ah ngaw naaw an an mu neex. nu naan daal seen toogaay rafet na. lii mm. di daal seen couleur baax na. merci. na ngeen def. ñooñu fi. taarikalla. tàngal bi neex na. na ngeen def. baa ngi jàmm. fu may toog. Hmm? improviser. li nga fi yow. dama dëgg bopp dañuy def mise à plat da ngay improviser xool foo toog. foo toog baax na. yow noo toogee noo toogee toog quoi. xuloo bi ngay moom na ko neex. kii du yem si toog man nu ma toogee nekkuma à l'aise kon nga demee noonu la. ah. déedéet. ñaata xamal naa la nga bëgg koo sekk ñëwal ne. ñëwal toog nit ñu. ñëwal seen dem dama dama. bisub tey bi jëy. mag nga juutu kenn toppuñu si dara. ndax nit ñu ko dal rek. dafa bari suñu borom moo ko teg. maa la wax lii de. jërëjëf waaye def ngeen seen jongo ma de. dañ koo xeeb. ñëw Guédé wax na lépp. bu difficile ngeen organiser nag. waaw nag lii de. Badou. Guédé. t'as la parole. Euh, ay indisposateurs ñoo toog ñun. Ah. waaw xanaa. ñun ñëpp dañoo indisposé. baax ah diir moo tax ma ne ay indisposateurs ñoo toog ñun. baax waaw léegi. dama leen wax si si yoon bi rek. waaw nii ay xaritu awa balaan. tarkala masala aw ba bu nekkee ci kër gi ba léegi dara ñaawut maa la kon tey bu feebaree feebaram daal di ànd ak suñu feebar daal di correspondé tey kon lii day dagan mën naa ne ah, mu ngi wax mu ne ma bàyyi gëne ma nag ah ma ko damaa bëgg dafa bëgg tey ñu organiser suñu ñànk ko nga diw siir ko te man fu ma nekk dama leen fay nekkal waaw daa euh, invité ay xaritam ma ne yéenee samay bàyyi sa yi ngay def tàngal bi tàngal bi. tàngal bi moo moo naroon a buuse. tàngal bee naroon a buuse sànni ko jaxat. non tàngal bee naroon a buuse. noonu naa daal neex na ma noppi kon. Uhuh. ah waaw waaw léegi léegi léegi daal mën naa ne ku mu neex jël. noonu naa ne kon kon kon ku neex jël. yeah. Uh-huh. yeah. ña ko ngi xeex ña ko ngi saaga nee na daa dee di ñoo di waaga ànd ak i kenn koko indaya nyango gifepa babam la jana nyanko yow xana giso nyanko yow bo xamone nyanko do la ke yeah uh huh yeah nyanko ngi xeex nyanko ngi nene da de di di waga ande ki 15 koko indaya nyango gifepa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 internet wwwcefas du 6 senegalcom ou bien www.e-du6cefas.com. Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh -huh. E yeah. kon kon ku neex jël. Euh. ah ne ko kelamati jëm ko tu baaraam mu taj waay. yow mii yow nga ne mosoo def lu baax rek. yow yaa nii la xëy na laas nga dama lay. bul tiit bu ragal eh, ah, jël naa bi. ah man maa naan naa ñaari yoon ah! bu may ñàkk sama bakkan eh. fonk la may rey. Eh! maa la jël yow li nga mën kay man de maa ngi jamono noir man. Eh. ma ne ko si jamono noir ak ñuy def say. man de damaa ko dama ko benn. Ah. waaye dem barki Sëriñ Bamba la ma ñàkk a tënk. moo musul am amatul. damaa jël sama temps. am lu ñuy lekk yàlla de. day dee boobu de bu dee bu na muy reesee. ceeb bu honnête la togg de. Eh, dañoo nekk ci weeru koor. ceeb bu honnête la togg de. ceeb bu noonu naa ni. Eh, jege si leen. noonu naa ni noonu naa ni li nga eh, suul. lu waay mën na ko def. lu nga bëjëk. kii aw aw ba kii kan la. yow yow yow la kan yow. damaa gis muy sinap. mu ñëw waaw sinap la def. mu ñëw ko. bu bu bu bu nu si def de. waaw dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la ku nekk na ko respecté. sa bëgg baax yow ba ñu umee ba tey mosoo woor. yow demal toog yow moom ñu pala tànn. ñàkk ko tàmm wóorul de. yëkkuma tuuti la nga bëgg eh, eh ah waaw baax na na ni. yàlla xëy na laa. nee naa leen lu waay mën na def. Eh. man man man Pañ dem na fu mu jógee nii yëpp ay ministres dañuy saxalaat. monsieur Pañ. Ah. lekk leen. waxoon naa leen ko de. doo leen lekk. ayca leen. waxoon naa leen ko de. ku bëgg jàmm bu mu jóg fu mu toog service rek ngeen delluwaat seen produit ngeen lekk ndànk ndànk ngeen continuer seen waxtaan bu mel ne damaa disparaître benn forf ngeen ngeen sëggaat ngeen continuer seen lekk ndànk ndànk. man damaa suuf. sawaay sawaay continuer sa lekk bi ngeen continuer seen lekk doucement dooman dooman. doucement fan la. dama laay waxal bëgguma am ak kenn benn problème. tuur lekkal. toogal nga lekk xolo pour mu lekk doonu doonu ma kenn dama bëgg kenn ku ne xam ne na lekk nank nank xam nga nan la demee eh eh tey nga lekk lekk sa moom lu toog nga lekk nank lekk du ko lekk saxal loolu saxal bi du ko lekk abata saxal bi ah dama eh eh eh wut sama ngeen ñaxte wax la ngeen booy booy xam nga ko waxtaane man damay bëti kaane lekk lekk damay fëti kaa. Fafa Fafa yow yaa ma yónni ma dawal. nga nga organisé li. ma toog ku ku ma njëkk a meloo damay ñëpp. waaw ñàkk yow. ñàkk Fadou Kure caxal ma. ñàkk organisatrice baa ngi na de. Eh, a ko togg. Eh, fokk noppi leen. loolu ngeen noppi tamit nag. Fadou Kure eh. ah Fatas ci bëccëg gii. dina naa ñaf ci kaan kaane bu bari jël ñànk tàng ñànk tàng jël diwtiir leen bi diwtiir leen bi suuf bi ñànk dànkal dànkal dànk naa eh dànkal mu dëggal si xalal kii kanti eh ñànk dànk bi di fekke ma ngi bu ma bu ma bu ma waay bu ma mooy fekke ma ngi del dégg gi li muy wax d'accord rek noppi d'accord ñaanal ñaanal ayca lekkal sañal sañal ayca ayca war na tubal <laughs> war a xam fay bu ma xool fa sax ko jëlee rek Eh, yow yow bul wax dégg nga damay fatigant sax waay football ko ma damay fatigant entraînement nii def ko ma dara. yéen mën ngeen di mën ngeen di jëw. dëgg la sa papa moo ma jox dépense mu ne naa ko togg. léegi lañ ko sa papa moo ma jox dépense mu ne naa ko togg. waaw man xam nga lan maa ngi resté sur place. booy toog leen. maa ngi resté sur place waaw ñu dégg ma bëri bëri fu mu toll nii. kaayoo kaay. kaay. waaw def leen def leen lan lan. ah eh jóg leen. waaw jóg nañ daf leen lan lan lan ma yëkkati booy. waaw daf leen lan lan. kii xam nga fan la cuune. sa waay eh, eh. mu cuune. dafa tànku ndox daal. daf leen lan toppal ci naan lan lan. papa. Euh. kaay ji ma mujjee eh, man maa mujjee de maa njëkk a dem si. sa waay bu dee man day foto teg leen ci lan bi. bëgguma tàng sama xol fii. war a demal war a demal ah déedéet yaa yaa sunu kilifa yaa nu mag ñun ñëpp. na góor jiitu jigéen topp ji. moom mi moo demee sax na jiitu góor la góor ñi la na góor ñi jiitu la. na góor ñi jiitu moom na benn président dafa ne na góor ñi jiitu. yow yaa ngi waay waay góor jiitu la coono eh, jeex na. Eh, eh, xam naa jiitu. góor ñi jiitu yow bala mu xoox de xooxal bi la waaw yow topp. dama yow la waaw topp. Fatou Dugune topp. kii. pas dugg leen topp booy yow laa wax topp leen. Ah. waaw topp leen. eh eh ah. Baye. toppati ko. eh Baye taxaw taxaw yow topp leen. yow mii yow borom lopp bi yow topp leen. booy bee laa choisir. man maa ji. waaw yow damay damay fonto ah. mënoo waaw ñaan sa papa moo ko organisé ba pare moo yow yaa eh, eh, organisatrice bi yow. bu eh, ma dégg ak ngeen naa noppi rek a sedd si ñun. xanaa la soxla. ñu may dem nag.

Lambungku. Lambung. Lambungku. Lambungku. Lambungku. Lambungku. Lambungku. Eh, eh. Waarom tambah lek? Hah? Sama aca saasam gën gës ñëw nga leen ku njëkk a ñëw doo ko dóor ku njëkk a ñëw doo ko dóor ku njëkk a ñëw doo ko dóor gën gësam kalkasam nan waaw baal naa la dama dama baal naa la baal naa la dama dama eh bay leen kër kër sëb ren. dawal dawal dawal dawal kër kër ñëw nga wax dawal. dawal kër kër sëb ren. dawal kër kër sëb ren. dawal. pin piisam rën. man fii la pin piisam rën. pin piisam rën. pin piisam rën da nga def nii. pin piisam rën. ñaa ngi si benn maa laa soxla ñaa ngi pin piisam rën. lamal lamal waaw baal ma ngi lay lamal lamal. pin piisam rën. lamal lamal lamal lamal wayu ni de wayu ni de wayu ni de. lamal jugal dem wuy sama ndey. wayu waay waay wuy sama ndey. ñoom wayu ñu de wayu ñu de. papa kaay. sa jëm bopp mooy demal baal naa leen dem leen mooy dem leen pii sam rëm yéen du leen ci dara dem leen rëm pii bu leen ma daw dem leen ngeen ngeen dem seen yoon musoo bokk sa ci taas bi pin pii sam rëm waaye pin pii sam rëm pin pii sam rëm pin pii sam rëm toog toog pin pii sam rëm pin pii sam rëm toog ba Pin pi sembrem. Kili mbak, kili mbak. Pin pi sembrem. Kili mbak, kili mbak. Pin pi sembrem. Kili mbak, kili mbak. Peace. piisum rën kilim mbak kilim mbak ten piisum rën kilim mbak kilim mbak ay waa ji neew toog na kilim da mooy la mooy la piisum rën kilim mbak kilim mbak ten piisum rën kilim mbak piisum kilim mbak ay mbak mbak eh eh duk la def ni piisum rën taxal eh piisum rën kilim mbak kilim mbak ten piisum rën kilim rën kilim mbak kilim mbak ten piisum rën mi ni jàpp li mi jàpp toog li mi jàpp toog kilim mbak kilim mbak kilim mbak Brun. Urata pita takin. Kira masih Segitu segitu. teel teel kool gi mu commencé ma teel teel sama xol bi gën a sedd ci kool yëpp waaye tey tey chef la bu taxaw yàlla ma yéene chaque jour Thiès rek waaye papa yow yow yaa wax du ko waaye mais léegi seen loxo dalaw ah chef a neex Uh huh. Yeah. Nyanko ni khair, Nyango ni saga, nene dade, dinyo waga. anda ki gens, koko idaya, nyanko ki fepa. Papa mlacha na nyango, yo khana kiso nyanko, yo bo khamon nyanko, do lache. Yeah. Uh huh. Yeah. On the. nyango ni xeex ñango ngi saaga nee na daa dee di ñoo di waaga ànd ak i gens kookoy ndaaya ñango ngi feepa boppam la ca ñanko yow xanaa gisoo ñanko yow boo xamoon ñanko doo la Sénégal5.com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 internet et www.cefas-sénégal.com ou bien www.e-cefas.com. Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh yeah. na ko gi fépp waaw boppam la ca doon ñàkk waaw yow xaar ma ci mbaar ma xaar ma ci mbaar ma waaw ba fàtte woo boppu yaboy bi utaaleel boppu yaboy de bopp moom la gàllaj gi di àndal boppu yaboy ay man kay boppu yaboy doo xalaat nga gis sa doo gis sa téléphone la wax ci gaaluwaale yow sa gaaluwaale loolu moo koy wey sa waay du ko waxtaan nga téléphoné waat nga téléphoné waat nga defoon ba nga ñaar fii. boo ko. defee. asalaamaaleykum. maa ngi def ku baax. ça koy seet. yaa ngi nekku fi. lan moo tax ngay dóoraat sa xiir gi nii xamoo xamoo ah, xamoo lan la xamoo ne daa am lu may faj ok maa ngi jéego léegi euh, awa a jox xaalis kon dama koy Papa Papa Papa mu ne benn jeex Papa Papa as xaar sama papa ñëw man seetlu ma sa baay de awa ba laa wax awa ba Papa Papa avant est-ce que mu ngi fi sax. ah man loolu sama yoon na indi kaalaange après sa fu ñëwaatee mu jox la xaalis. man non loolu day yàq ji baaxul baaxul ci ko bi. toogal xaaral ma toogal. non baax na man ni ma nekk nii am ah, maa ngi à l'aise. doo woote waat téléphone ma xam. ah kii kenn woo na la woowaat. non moom coupé na. yow man man man lan laa wax ak yow ci ci ci téléphone moom mooy ut ay gàllaajam naan bopp yaboy kay loolu kay jaru ko jaru. loolu. baban da nga fay waa kay waxaatal la laa wax yow waxo dama comprendre lan la lan la lan la du dara lan la qu'est-ce que lan la salaamaaleykum aleykum salaam koy chef awa ba waaw moom moomu gàllaaji man la doon ëwloo man maay fara wuude ah ya, yow yaay ya, fara wuude waaw moom mhm. la léegi ma ñëw fi di ko eh? seet mhm. naan maa ngi woote téléphone prégo mu mu dóor mhm. ma ma noppi parce que benn coow ndax kër jàmbur doo fa duggee ne salaamaaleykum ñu doon ñu dóor la eh, eh, kor feeñ wala ñu door la yet mm-hmm. amato fa togaay waye dañ li dañuy galaji ji mm-hmm. motax ma resisté and ak mom ni rek mm-hmm. awa ba mom galaji te dama wara a jox xaalis ci kattanu yalla mbax mu la nit galaji ah. muy téléphone ah, xam luy taflo do lay wuy téléphone di ma gal wa ah. légui yow bu ñëk moy lu ma gar wa defal nak yee yow violence domestique nga def waaw waaw parce que waroon ñëw rek afu kër jamono ci tollu waroon ñëw kër jàmbur di yor galaj, nan diw la ko indil ba nga xamee ni yow fa uude nga da nga war a toog sa baram liggéeykaay moom mu xamante ni moo doon def loolu nii ma lay def loo mu fekk la foofu nga jëflanteeg yow lu mu war a jëflanteeg yow waxoon noonu. déet Ndofane kay bala moo ñëw ci yow dafa am ñu jox ma xaalis dama ne ko ëllëg ñetti junni laa mu joxoon na ñaari junni des na junni. Hmm. waaw anam moom. ah yow doo yaay yow. ñëw fi dinaa ko nga dama anam moom. génnal après moom nga woo ko mu fekk la fu mu ko defal la woon nomba gi mu jox la sa xaalis nga jox ko noonu. moom waxoon ne gàllaaj gi mënuma xat mu ko delluwaat da koy yàq. Ah, te bëgguma yàq gàllaaj gi yàmbul. non man mën naa génn mais gàllaaj a yàq. bu fekkee yoon nga junni am ah, man ma dem jox la gàllaaj. Euh, mën nga génn wala mënoo génn. papa jaay ma ko. dégg nga may ma rek mais damay waxaal bàyyi ma waxaal ba a jubóo ma jox la mën nga naa génn kay. Euh, disposé disposé léegi awa ba du mu. ñaaw ko man mën naa kaa xaar. prix boo fay baax na maa ngi ci. mën naa kaa xaar ah ah soo si sëñ bi bu ma bàyyi kii kii yorut bu ma ba ay. dori damaa dem ba affaire ay ay technique laa ci am xoolal. xam king baba ko king day wuli ni moo soxla ndoom laa wala jël sax xëy xëy gi dana saa sax aslantu nafsi yow rekk yaa ma ko jaral ba tax na yaa gën ci yonent yi ak bëgg yonent bi li ma leer ay ku mu leere nga jàpp yonent bi jox naa la sama xol ba boole sama ruuge nangul ma yaa gën ci man kay kay kay yonent ba feeñ naa. waaw Baba Baba Seye waay ñëw na. Ah! sama xarit bi naa la. ci loolu faaw eh, bu mu toog. Ah. ba may nekk ci biir. daan lu ma jëli si sallallahu alayhi wa sallam. Ah. ma loolu. jox naa la sama xol. Hmm. ba boole sama rugee ma yaa gën ci man. yeneen ma feeñ naa. fi ma tayamul isnayni. ah lii lee waral ñu way di kañ yaa Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam li tax ma lay way du baat bu neex kay cofeel gi dafu ma sonal <laughs> man Mouhamed Alla Diop man tam ñànku man man ñànku Njaay man jàpp yeneen dama ci boole waa ji way yow ñànku Njaay la leer waaw waaw kumu leer nga jàpp yeneen tv ku ma sonal ku fa aflan aslantu nafsi yow rek yaa ma ko jaral ba tax na yaa gën ci yeneen tv waaw waaw la aflantu nafsi yow lekk yaa ma jalal ba tax na yaa gën ci yonent yi wooy wooy ñàkku njaay mu leer ku mu leer nga jàpp yonent bi jóg kay kay kay jóg leen woo ñaa fi lay toog toog fi kay ah ma toog yéen yéen tamit jàll lu ëpp li ah dëgg la de moom kenn du yéen tamit foo bismillah mën naa de maa ngi nii rek na mën naa mbaa yaa ngi ci jàmm waaw dama laa koy gi maa ngi nii yaa ma bàyyi yow yaa ma bàyyi waay daal xel mel na ci yow ma ne xaaral ma ñëw seet sama waa ji yaa baax de daal di koy siyaare ci ci ci yéen eh. bi mbaa kontaan nga mbaa yow daa galaw bi yow laa koy jox ah ah ko jox ma ma ma sol ko ci korite gi waaw korite gi moom boo solee lii moom dem siyaare ji mbokk yi baalante ak ah dina dina baax de dina baax de aleykum salaam ay waay gëre li loo ma mën sa defal ci at lii ma ko gën allah ngi allah ngi allah ngi wul dugg ki ma dugg rek. faral yow jaabil moo sabil woon si la sidna Muhammad. wala taqiya an xëy fi mu tawalla. sidna Muhammad. boppam ba mat bëtam yére yi. bu la xoolee leer yéen mi xuy. joomi naaj bi door xëy. tànkam yattaaru seet na jot kenn Seydina Muhammad eh. bi mu juddoo moom moo ngi set e eh, na bi taxul deret taxul meret ñàkku njaay xetam neex jëmam rafet bëtam yëttus ngal moo tumat Seydina Muhammad dina yaa nga naan jonni ah la war a xew xamatunu kaw asamaan dematunu ku naaw bi deewi tas la tasar kenn du Seydina ya, Muhammad kooku mooy yeneen ya, be ya, ku la bëgg raw texe ku la na ana sa fa yeneen di ma ne ay ku mu leere nga jàpp yàlla na ma gudd fan. Guédé wax la kii yow tamit nag. tudd si lammi nii. noppi leen. noppi leen damay génne lii rek waaye noppi leen noppi leen. noppi leen. wisoo wisoo wis. ayca bala seen jooy waay waay bala seen jooy waay. yàlla na nga gudd fan. Ah, loo mën ren yàlla na nga mën lu ko ëpp déwén. nit mën nañ ko naxee ci lu ne. kay mu lànk waaye yonent bi. dëgg la kenn la de. ki gën sama nday gën sama baay gën la yow mii. gën la de gën ñun ñëpp. yow lu la waay jox mérito nga man sama rangoñ yomb la ah, ah, ah, ah. c'est pas c'est pas donné à n'importe qui. dof bu demee bay jooy. yonent bi xam nga ni ah ah ah. ñëpp ko yëg. dof nga doon yëpp dof ngay doxoon dox doxoon toog loo mën bu ne nee yonent nga sukk. nga sukk ba barki dem na la toog fii ci kër nga am loo way ci mi lu doy waar moom moom moom. wéeti ah. waaw ah, bàq ma lay fàttali waay wuyee. wala na Moustapha ay sama waa jaay ni. waaw <laughs> waaw bare di woo. Mamadou Abdoulaye ay sama waa jaay ni. <laughs> waaw bare di woo. déedéet ma mu baan sama maam mu sama nanga gaay waaw si xiiri maam yi neexal ñee dokoy sama nanga gaay waaw kooku mooy maam yi Cheikh Diouf dokoy sama nanga gaay waaw maam yi Jaara Diouf si xiiri moo koy sunu maam nanga gaay waaw koy medul balak may sa balakot balakot du maane mbaay may sa xarit ma taaw gaawal. lu jafe la def nag wax ci yonent ba yut. ba yut c'est la première fois. yàlla xoolal ah man Mohamed ëtt limti bi nga ñëw da ngaa ñëw ci ay njëwal kii mm-hmm. ñànku mii mm-hmm. lu ko yëngal yombul déedéet déedéet ay yutam lu ko génne yombul génne mii di bàyyam mm-hmm. bu nu wooyee rek xam na fu mu toll ci yonent man de naa àdduna tey ah. pare naa ah. kii kii sama xarit la Fadou la sama xarit la kii waaw yonent bi moo ñu boole sallallahu alayhi wa sallam da ay jàngam ma daanu fa daa premier way bi may rek ci laa daanu. Mm. bi may yeew ay siis la laa fekk. waaw ñëw. waaw te mu ñëw fekk ma fa may ma xaalis may ma cent francs dama dama ñibbi. <laughs> jàmbaar la foofu laa xamante ak moom. ca cent francs ñun na xam nañ ko bu yàgg. Mm-hmm. ñun dañ koo ngénte. ah waaw kii baam la noonu àndal. Alla Diop la ilaha lu lu ne lu ne lu ne way na ko ci mm-hmm. lu ne am na ko ci yonent bi. Uh-huh. mummi ama o a safara mo leyti leyti leyti may looɓe eh, eh. eh, di ah, ngoyan kat liti ngoyan nga xam ngoyan ngoyan waa kawla ko moom non papa di ketagalewo la yow sëriñ téléphone nga dama waaw xam na xam na do ngi ci gel ku lawul dal xam na mo wala mbarum gi nax nga mo day lay saxul mo saf mo xam na way xam ay de la kala la wala ay de la kala wala wala kala la Eh, aku kon soo bàyyi ko mooy loolu. sa papa yore na ma ñaari junni yoo xamante ne jox ma sama yor waaw. waaw maa la jox lii addiya yonent sallallahu alayhi wa fay ma si barki yonent bi fay ma si barki yonent bi moom ba ne baax dafa am da addi si barki fay na si barki fay barki yow da dafa bor de kii déedéet delloo ko delloo ko mu teg ko ci loxo àlla ah, waaw euh. ah da nga ko delloo nee sa papa yéenal na ma bor ci barki yi nunti bi waaw li mais fay naa la ko ni bor mënu ma kaa jël mënu ko jël waaw mënu maa fay ko baaxaay baalal faafaam ci barki yéen bi baal ko baal naa sa papa si barki ñoom nag waa jeex kaay ki fi lay ndogoo ki lay ndogoo de ah. moom moo fi ndogoo yow dama sa yaay jox la loo ndogoo waaw kay waaw kii lan moo tax mu réew. noobu leen nam leen. kuy dem fu mu jëm ah. Ya gën mënoo bàyyi di wax ak ñun duñu gëdd sa milieu. man du ko rek di ànd ak yow bis bu yàlla sàkk sa buum bi am oh waay waay waay waay waay. Yeah. Yeah. nyango isaga nene dade yeah uh-huh. yeah nyango ni khair nyango isaga nene dade dinyo diwaga anda kikens koko indaya nyango ni fepa papa mlacha na nyango yo kana kiso nyango yow boo xamoon ñankoo doo la jekk yeah uh-huh yeah ñanko ngi xeex ñanko ngi saaga nee na daa dee di ñoo di waaga ànd ak i gens kokoy daaya ñanko ngi feeb papam la ca naa ñanko yow xanaa gisoo ñanko yow boo xamoon ñanko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 et les www.cefas-du6sénégal.com ou bien www.e-du6cefas.com. Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh -huh. yeah. ñanko ngi nyanko gi fepa ah, ah. Babam la jana nyanko yo xana giso nyanko Yo bo xamon nyanko do la ke kan moy nyanko Babam la jana nyanko yo xana giso nyanko Yo bo xamon nyanko do la ke kan moy nyanko Nyanko dafa lew mi kon do tok ni ko mag lay ke kan to Nyanko babu jango boy rangu sot ñi nenañ dafa do Nyanko ko kali ba malak men dafa lew ba toog ñanku def bu lew di luube lagalu loolu du doole nekk ci koñ bi di tooñ lekk ànd ak ndaa yaa di yoole boo koy seet fii mi ngi boor bee jaroon na nii léegi fël fee taxa wàllu du toggale yow yaa moom yaa moom kii bi boobu ay xawa so fayo ah, boulanger fa day fa defal mburu ah, boulanger bi waaw ah, maa ko moom yow yaa moom foofu laa jóge si booy ma ma laaj leen la ma ñu ñu ne amuñu mbul. da laa war a jox mburu yow. waaw ma laaj leen ñu ne amuñu mbul. pour lan loolu. waaw ma laaj leen ñu ne ñoom duñ def koor gi heure yi duñ defal mburu. waaw koor nag dafa am heure yoo xam te ni ci la ñuy defar mburu quoi bu dul dafa am heure boo xam tamit ci la ñuy defar mburu. non def nga heure kan wax la. waaw loolu mooy mooy yoon. non non non la. heure waaw saa gis léew mi gi nga léew mi lekku ñu fay woon. dëgg la dëgg la ana yoo xam ne dañoo feebal ah ana yoo xamante ni mënuñoo wool am na ñoo xamante ni nekk ay jullit ñooñu dañ leen war defal seen mburu bu ñu ndekkee ko mais defar nañ ça dépend nag ci heure bi li ñuy li ñuy defar ci loo boobu mooy gën tuuti bu dee koor ñuy def dañuy wàññi dañuy wàññi poids bi quoi non du waroo koo wàññi da nga leen war a defal ñooñu seen mburu looluy dëgg waaw ah, d'accord beneen yooyu nañ non non non déggool fii li ma lay wax sa waay ah. déggool dama ni ñooñu da leen defalal seen mburu yi nu mujj tey ma dem foofu laajte leen ñu ne defalul leen mburu déggool li ma dégg naa léegi wax yow léegi lan nga bëgg dama bëgg ñooñu su ma eh, da ngay dof dof lu xaw ma da ngaa gën a réew fuuf yaa xamadi waay fët cee ka ngay waxat eh merde sa waay duul eh. ñanko ngi xeex ñanko ngi saaga nee daa dee di ñoo di waaga ànd ak i gens kookoy daaya ñanko ngi fee boppam la ca naa ñànko yow xanaa gisoo ñànko yow moo xamoon ñànko doo la jee kan mooy ñànko boppam la ca naa ñànko yow xanaa gisoo ñànko Aliou Cissé ah loolu Sénégal la nekk dof ak xale yow xamul dara lu yàq. ah sëñ Babou kaay kaay ngay dóor wala ngay. day def ko dooree nga dóor ko dooree ah ah. déglu dañoo am gan. ah waaw kii maa ngi dajeeg moom ci mbedd mi. waaw amul lu wax ak man. Mm-hmm. tontoo ko mu fëgg ma xiiram gi. du yoon du yoon du yoon kii day lay dóor ba faaw bu ah, def loolu bu def loolu. danaa ñëw ci kër. Mm-hmm. fekk fi ay kilifa. dëgg la bàyyi ma ngi nii tax. Mm-hmm. muy gëdee waaw nga jéggalu rek. may ko ñaari minutes ñëwal gëdee. ah sëñ bi. man ba nga dugg see damaa kontaan. teesalaamine. Eh, eh, teesalaamine xar teesalaamine. ay eh, noppil. ñëwale ñëwale ñëwale ñëwale ñëwale. ay góor yàlla ngeen ma sama man mi toog fekk jaruma jaay man. kii lan la yow. moo teesalaamine wax wax pare gu ma nga may dóor pour lan. du yoon warulaa dóor warulaa dóor man man maa bàyyam. teesalaamine boo ñëwee si kër ga ma accueillir la. xam nañ dañ laa tooñ. du kër mi xamee mu ma si ay caaxaan. mukk mukk Falaas Mbaye waxi noppi. noonu nga. Hmm? man bu dee mu doon tey gox bi man lañ fi fal chef de quartier ndax lépp sama kër gi lay xewee. Ah, ah, ah, yow ba nga ne bu rek dugg sama xel daal di Aliou Cissé. ma yaakaar ne Aliou Cissé moo ma seet si. ndax seen rasta yi benn nan taar kàlla ma xoolal muñ bi. yow ku bu neewul nii xoolal bu eh, eh, neewul. yow sax la yow. kii daa mënta noppi dama bëgg ñànku mi. Hmm. ñëwul kaay kaay. kaay nii wàccal nga jéggal fii. àdduna méttiwul te solo. wàccal ñun danoo da nga ñu fekk ñu yor suñu sër. bu xottee di ko ñëw eh, benn pa. na na ju na eh, ko ah, na ko xaaral waaye yéen yéen yéen man man man dama mënta yegg li may wax wala déet. mais man dafa am taxawaay damay eh. dem. xoolal buy ma da nga ñu dimbali rek. da ngaa ñëw ci kër géwal cool fu mu bay. Mm-hmm. mënta ñàkk kii moo la tooñ. Mm-hmm. ci tooñ la dëkk. Mm-hmm. boo ko xoolee ni mu mel ni xam ne wérul. Ah. baayam boo xoolee ni mu mel nii comprendre al jarul may yegg jël sa loxo nga baalu kaak na gaaw baalu eh, eh, kaak kaaro kaaro xamuñu yàlla waaye xam nañu yàlla. li ma def su ma ko ci bàyyee nii dina dóoraat keneen ci mbedd. léegi baal ko man su may lakk mburu yaa may jox heure may lakk mburu su may joxe versement yaa ma koy joxe loo. kon lu seen sama boulanger ak sama mburu may lakk. su ma amul lu may seet dina demee neneen. waaw jërëjëf waaw waxo mu jëloon ci village may yëgee foofu. waaw waaw léegi xoolal loolu xoolal ba sant ba. kanji la. cim kanji bëri am soose. laay la kanji ngi. bul dem bul dem suufu kanji suufu kanji ah, hmm. ah. moom daal li ñu leer na. mais nag mu dimbali ko mu jël ko liggéey. Hmm. waaw bu dëgg dee dëgg kii moom wax dëgg yàlla mënu ma ko jël sama bula doo noobul doo doo noom pël fu la mu nga ma jël noom présentation non du noobul ah, ah, parce que nit kenn du ko xeeb ñànku baal ma jox sama carte visite na si ñoom de pël fuuta yi waaw pël fuuta yi ndax ay nit lañ ay nit ay bàyyi bàyyi tuumal doomu jàmm ay nit lañ ñi kay dañu ay jërëjëf jërëjëf